ma yokkal ma mic bi ndax ma mun a toog ku Gambia du dem ñu ne la sista Iva Sarr. ñu dem Iba Gambia du them show. every Sunday la on Gambia Talents Radio. hosted by Pa Ousmane and Ivasa. oh. 6 p.m. la GMT, just in case you ain't know. ñu them, Luther Gambia do them show. Every Sunday night on Gambia Talents Radio. Hosted by Pa Usman Juve and Eva Oh, 6 p.m. La GMT just in case you ain't know. Thank you. Gambian Talent Radio. Aha. good morning good evening good afternoon fu wadi deglo di setane du deglo sen favorite programme sen favorite show Joge ci Gambian Talents TV Gambian Talents Radio all the Gambian Talents platforms Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci microphone bi ànd ak Iba Sarr ñu leen a teeru di leen dalal di leen tatagal ni ñuy teeroo bool di leen ah, tàllal loxo nag di sàkku ñaan si yéen di leen wax ne happy Sunday and have a happy week ahead ma ànd ak suma xarit nag suma doomi ndey ah, xale bu ndaw Iba Sarr nuyu naa la. dellu si waat rek ñëw ràccu nag last week nga géré woon affaire si rek njatta ma rek ne foog ñu demoon air even was in a position to ñu def lu am solo nag lu ala daw me Euh, génn fu nooy euh, lii nga xam ne nag moom la def ba tax Gambie du dem li may def man Pa Ousmane ba tax suñ dëkk du dem kanam yow mii looy def lu tax Gambie du dem kanam ak yow mii di déglu di seetaan lii ngay def ba tax Gambie du dem kanam ma ne rawatina nag suñ président euh, Adama Barrow ak ñi fa jaar liñ def ak li ñuy def ba tax suñ dëkk du dem kanam ma ne ana kilifa diine yeeg kilifa aada yeeg cosaan yi lañuy def ba tax suñu dëkk def kanam loolu la ñuy waxtaanee Iba ma bàyyi la nga nuyu wanteeg mbokki déglukat yi seetaankat yi. waaw jërëjëf euh, papa Ousmane nuyu naa la euh, nuyu ba xam mm-hmm. ne man damay am fierté mbégte lool pour war a mun a euh, jàkkaarloog yow dimanche bu nekk pour war mun a ak suñu askan kon rek ñu yaatal ko ci kanam bu ñu doon incha allah waaye dama naa la leer nga tawam na tuuti leer nga <laughs> non maa la raw yow laa bugg a yow laa bugg a dugal rek gaay jàkkaarloog yow li ngay génn ci jànqate yaa taay man daf ma jaaxal def yëfi xale rek démba déedéet kaaruma ko sax nag danga nekk di def yëpp baax démba démba fi nga génn nooy na lool macha allah week fiil kontaan nañ xam naa ci yow ma kontaan ci yow nag gis waa week fiil ak li nga defanteeg ñoom génn fu nooy génn fu rafet macha allah sa coverage baax na seen cultural night baax na tamit Hmm? Mm-hmm. waaw euh, dinañ ko analyse bu ko mm-hmm. euh, comme li ñu wax rek dañ toogaat yi dañ dem jamono joo xam ne mm-hmm. euh, moomatuñu suñu suñu liggéey song nañu sut nañu rawatina su askan bi soxlay wax naa bu askani gaanee soxlay rek damay daal di nangoo nekk mm-hmm. ba sax daal di laamee ko. Mm-hmm. ñoom ñu dox suñu kaw Fida. te mm-hmm. demoon nañ defi ko fi nga xam ne. mooy Fatou gis ngeen ko COVID bi. ñoom tamit comme amuñ xaaj amuñ seen. dañoo jël site. ñoom tamit bu xewlee wax ñu seen i bis. yëgal ñu buñ ci mënee dem rek nañ dem uyu yeneen. Euh, ñeneen ñi nga xam ne am na seen bis ñoom buñ ñu ko tee. nekkul dañoo def pick and choose. am na obstacles yoo xam ne mënuñu koo wax. di yoon contrôle buñ ñu ko di jàppee. loolu rek. ñu bari ñu ngi waajal nag ñu yëgal ñu ko invite ñu mm. suñ ci mënee dem rek incha allah dinañ ci dem mm. waaye Wakefield nag moom boobu naa suñu ñu dañ bokk ci man mooy war a ñàkkaa bañ a dem mo tax dina ma defal dégg moom noonu mm-hmm. tay ke nga ti parle mo way de rek dak dama ñu war ku yodo la men ci noppé rafle ñu <laughs> ngi leen ay yeen ñu ñuy déglu di ñu sétane fu ci nekk yeen ñu ñuy sétane youtube ñu e ngi leen dalal bu baaxa baax di leen wax ne ñu ngi live fi ci Talents Amin TV Pa Ousmane du fak Iba Sarr nekk leen ci gannaaw microphone bi képp ku ñuy sétane facebook yi tamit nuyu nañ leen yeen ñi dugg si pour sétane ñu Amin mustapha sen. maa ngi lay nuyu Pa Ousmane tiam dalal nañ la ci jamm ak salam di la jox sa wàccuwaay Kaw Balde yaa yaangi ci bir machallah la sana Thiam Sankare ñu ngi laay béggee bu baax a baax a baax Omari Mbuub ñu ngi laay béggee ah, Linda Lensi ñu ngi laay béggee Xataab Sonko yaa ngi ci biir suma broda Fax Touré yaa ngi ci biir ah, Baby Youss Jaaju Arsenal ñu ngi lay béggee bu baax a baax a baax Ibrahima Diallo ma ngi lay béggee Marima waaw Marima ñu ngi lay béggee bu baax a baax a baax ah, Sey Sow ñu ngi lay béggee ah, bu baax mu ne ah, love you my sister Iva Sarr Habib Ba ñu ngi lay bu baax a baax maam mama yaay Aïcha ñu ngi lay béggee bu baax a baax képp ku ñuy déglu rek di ñu seetaan yéen ñu nekk YouTube bi tamit mu ngeen a seen seen comments yi and we will be glad to read them out lu tax Gambia du dem show last week ñu génnoon fu nooy ñu leen koy waxee askan wi wax ci taxut ñu génn wax ci askan wi joytu mooy tax ñu génn a wax waaye nag ci ba wax jotee te lu tax Gambie du dem suuf falaa jotee ñëpp wax ñëpp def ñu déglu ñëpp toppa ñëpp seet ñëpp su ko defee ñu mun a wax lu tegu lu dégg boom lu alaa daw me suñ dëkka jamono ji xool tooy na yaram daw na yàqate ko ma ne last week ñu génnoon wax ak suñ sista di roxi Malick Lo mayoress of Banjul, the first female mayoress of our country history la kenn mënta jël loolu loolu yàlla moom la dogal te luñ war a respect la te luñ war a celebrate la waaye nag it comes with a responsibility pour tënk show bi rek link baa ngi YouTube mun ngeen koo seetaan edda nañ suñ sista ne ko kaliyaa am na solo waaye jamono ji suñ dëkka fiñ toll yaram daw na ni ma ko waxee jamono ji fiñ toll xooy xool tooy na jamono ji fiñ dafa fragile the new democracy that we are just finding that we need to enjoy kon képp kuy wax danga war a bàyyi xel rawatina njiit lépp loo wax nit ñi dañ interpret to be the words of the state to be the word of the city even though it's your personal opinion and the like nga teseeg pa Ousmane mu joge Badibou nga am kalayante sa digganteeg Badibou nga yeeg garanka yi nga togn ko du wàññi dara way ci public platform so fa taxawé li nga wax bàyyi ko xel sister Roxi dolo dinañ la ko digal demba digal la ko tay digal la ko eleg ya kepp ron office nak ya kepp a kuy askan wi bay leen xel ni ngeena a ndax seni kàddu la askan wi di wéyee seni kàddu la askan wi di gom kon foofu lañ génnoon Iva Sarr waxtaan ak sister Roxi wi di Justice to Read xaw ma ndax am na loo fàtte loo ci bëggoon a yokka wala loo waxoon nga bëgg koo dégëraatal su ko defee rek ñu continuer ak show bi taataan ñu ngi leen ay bëggee yéen ñu ñuy seetaan lu tax Gambian Dem Show Iva Sarr waaw euh, li ma bëgg a dégg rek mooy euh, comme ni ko yi la rek euh, moo booxiloo mu war a mën a xam ku mu doon ak mooy kan ak ban valeur la am ci réew mi mm. bugga bi daf ko war a seet ba ko jot ak ba na ko loolu war na ko bi ndax war na ko ràññee bi la jot bi la em ak bu la jotut bu la jot bu la em ak bu la jotut mm-hmm. ñetti mbuba jot bu la mm-hmm. ak bu la jotut mm-hmm. war na koo tànn si biir wardrobe mi mu xool bu muy sol suy génna bu loolu weesoo tamit am na kàddu bu mu ekkati war ko war a waxee war na ko nag ne leneen dina ñëw ñu fàtte lu gën a rëy week bi leneen lu gën a rëy loolu ñëw na dañ ko war a mun a fàtte kon buñ ko dee jël nag baabal ko foofu noonu Gambia ni tey xëj na tey li xew ni lopitaan bi moom tam dina ne leneen dina génn next week lu gën a réussir ko suñu fàtte ko kon kañ la bàyyi ñu di jëkk a kañ la Gambia di dem nañu ci bàyyi xel ñoom suñu ay bu baax a baax a baax loolu rek laa ci bëgg a yokk papa Ousmane mu xam ne nag eh, moom ca moom roxi loolu loolu la sant according to culture boo xam ne mu ngi koo toppa ba di buñ koy duñ ay kalam warut a jël kale ñi yaayam di kale mu kale leen ba pare si public ko waxee. Mm-hmm. waaw su ma génne loo xam ne mu ngi wax pour nation bi wax loo xam ne nit dinañ ci jàngee dinañ ci njëriñoo loolu moo tax ñu teg ko in office jàng ak njëriñ loo xam ne dina jàngal askan bi ee leen ba pare dina njëriñ askan bi loolu tax ñu teg ko waaye du ay wax yoo xam ne askan bi dinañ ci am na naxar ñi ci bari am ci loo xam ne maanaam mooy disappointment ñi ci bari am ci li nga xam ne mooy yaakaar bu tas loolu taxul ñu teg leen ci moom nag ak ayam ñaaw naaw leen nag ñëpp na ñun kon nag waa waale rox yi jeex na ñu ñëw ci li nga xam ne moo moo moo lëmbee réew mi tey mhm. waaw li lëmbee réew mi liy daj dëpp ak nday gi li ñuy waxtaanee tey ñaari affaire la rek bi ci jiitu mooy first lady Fatou Ba Barrow gis nañ her foundation is fully established now her foundation is fully established am na a ñi nga xam ne ñoo ko ron muam am and everything in addition to that mu def yu bare bare bare bare bari mom first lady baro jamono ji nak waw ñu ngee genn ci pour waxtane affaire am len bir ne week buñ nek ni la won birthday am yalla def nak mu fekk ko Nigeria we have to set the record straight ndax iba bari na ñu ne ah, Fatou Ba dafa jos jog rek dem Nigeria pour celebrate fa birthday am Dedet. for the record dafa fekkoon mu nek fofu on a mission ak jëkkër ji ñu gis lecture bi nga xamne president baro def nako ñu gis meeting si nga xamne am nako ak president Buhari ak ñom sen. mu and nak ak first lady bi of Nigeria ñu dem ci l'hôpital bi ne dafa dem mom ba na bàddeeyam foofu la ko fekka dafa dem célébrité ko fofu su ko defé mu jël ay bagage ko fofu ci lopitaani Nigeria bi ah lii kat nag mu indi coow lu bari lii kat nag mu jur lu baree baree bari ñu nañi rafetlu ko ñenn ñi rafetlu wuñ ko ñu foog ne nag ah, lii lu doy waar la ñu ne xaral ñu indi ko ñu waxtaanee ko kon dinaa share some of those pictures Eva Sarr of the first lady at Nigeria su ko defee ñu gis ko rek ñu xam ah, li ñuy wax ñi nga xam ne jotuñ ko woon a gis ñu doxee ci gis ko ñu xàmmee ñu ràññee macha allah yéen a ngi di setan lu tax du dem show joge ci Gambian Talents radio Pa Ousmane Diouf nekkal len ci gannaaw microphone bi anda ak Iva sar nak ñu ngi lay nay bege bu baax a baax a ah, Iva su fekke ne yaa fi rek macha allah ah, dafa mel ni de Iva sar o oh, da nga on right o oh, da nga mute on ok ya yaa mute on waaw baax na kon min nga mute ah, yéen ñi ñuy setan picture si first lady bang ngi this is the first lady. right there in Nigeria of course di defante gaay yu baax gis ngeen mu amee ay gift amee card boobu noonu mu ngi tegee ay gift ñoo si nekk ah, mu ngi amee baag si su ngeen seetee lii ah, baag la boo xam ne of course is customized with her picture and everything on it mu ngi amee ay gifts yoo xam ne moom la nekk di jox patients yi ci Nigeria ñenn ñi kat rafetlu nañ lii ñenn ñi rafetlu wuñ ko you can see her here these pictures were published by the Nigerian First Lady ne Fatou Babaro actually dem na foofu noonu mu am ah, ba dem fekk ko fa mu decide pour dem si lopitaan bi Nigeria pour joxe fa iva ñenn ñi ñu ne kat yëfi sàmba Alaar la def fi waane la def ndax ñu ngi nii di wax ci lopitaani RVH dinañ ci ñëw ne amuñ ay bags blood bags ñu ngi nii di wax ci lopitaani RVH naka la frigidaire beeg frigo bi mel ak yeneen yi ci nekk yéen a ko gis yéen ñiy seetaan RVH a nekk nii this is the refrigerator bu nga xamne fa lañu ñoo blot yi I mean first lady um, Baro, dem Nigeria moom nak uh, batere ni nak ba deyam la uh, Iwasar gars di ci wax nak façon yi kàddu gu nekk gars di ko wax yow lan nga ci degga waaw ko Ousmane comme li nga waxoon rek xam nga fu garal ni gën nekk dafa bari hmm. naam amoon na sax di enjoy bo fu boo eh, ni bu ko dugga euh ñing ko waxe hmm. ñu la ñu waxtane hmm. robinet yi moom la waxtane xare ak bëy sax moom la ñoo waxtaanee waxtu laa doomi adama mhm. mu doon loo xamante ni comme ni nga ko waxee la euh, public bi ñoo tax ñu toog ñoom dinañ ko eggee wax seen i xalaat euh, mun nañoo wéy indi seen i xalaat ñu waxtaan bu ñu toog rek no noonu du dem. Mm-hmm. nañ ku si nekk wax li nga xam ne maanaam mooy sa point of view. Mm-hmm. su ko defee rek xëy na di ñàkk moom bu dégluwul am na ñu o jege ñoo xam ne ñu ngi ñoo seetaan right now dinañ ko ko àggee. Mm-hmm. te lépp luñ toogal si social media GRTS. ñu doon mention something like that ba na escalate na ba dem ci li nga xam ne maanaam moo woon o ji askan bi sax mention nañ ko fa. kon ñu ngi bàyyi social media bi xel bu baax a baax ñoom seen bopp am nañ teams yooyu ko xam ne ñu ngi disguise seen bopp and lu am solo la nañ dugg si wéy na ma yan fa ñu kool askan bi la Gambien si nañ dugga wax li leen naxari wax lu la naxari taxul nga nekk ay bad citizen wax lu la naxari taxul nga nekk loo xamante ni da nga bañ government bi wala yow anti government bi la wala yow bokkuloo xëj na UDP déedéet Gambien ñun ñoo ko moom and it's bigger than all of te foog naa ne loolu suñ ko gisee jiital ko rek eh, du war a mun eh, jeopardize li nga xam ne maanaam mooy li nga xam mooy suñ priorité nit si am na ñu wax ne nag bala nga lah jay lah na dafa mel ni que sa fausse la di mom lolu la def laaxut nan de waaye dafa laax jaay mhm. wa lolu rek ñu xaar gay bu si kanam ay njëriñ ay njëriñ ngay li nga li nga ah. li nga wax nonu dégg nañ wa UDP seen yenn ah, ah, forum gay di wax ne first lady bi lim def ni ki melni ni Fatou Camara nga xamne Fajikunda moom mooy seen yaay compine nga xam ne dafa génnoon ak ñoom Lawyer Darboe benn maire la foofu la nekk ah, mook ñoom Lawyer Darboe daj nañ lu nekk ñenn ñi nga xam ne ñu ngi bokkoon UDP ñu bari ñu ngi mere the first lady generation waaw waaye waaw mu waaw waaye de faatu Camara dama wax ba ne faatu kamara mi nekk xanaa Fatou Camara bi kay nag du yaay compagnie UDP nag. the last time I check the last the last time I check anyway waaw Fatou Camara bi benn maire la bu nekk foofu noonu moom mooy seen yaay compagnie mu nekk koo xam ne nag amul lum dajut ak gaay bi ñoo jàpp ñoom Dabo ñoom la woon amin ak fàtte naa beneen jigéen ji turam waay ah, du nogay de. Euh, fàtte naa turam anyway ba den waaw ñoom la woon ñu nekk fa struggle ak ñoom daabo ñu jàppale ñu def lu nekk génn na ay yaxam a ngi metti mu ngi am problème health she's not cured this dina play audio bi léegi nii Eva ah, su ko defee ñu dégg ko ah, ñenn ñi of course ah, ñu ngee wax ñenn ñi nga xam ne jot ñëw réer ñoo xam ne they were there with the UDP folks biñ leen a jàppa atam ak problème yi nga xam ne ñu ngi ko doon di am ñu ngi ko doon di jànkuwanteel ñu dugga ci seel bi ñu dugga ci jéel bi mile two ñu daj fa lu nekk ñu pare génn lenn nag dinañ ko wax doo first lady bi yu fi Samba Alaar gi ñu ko wax am in her defense on the other hand Eva she's been doing this bi mu toogee ba tey bàyyiwut lopitaani Gambia she hasn't as far as I know she's been to every community every hospital in the community in fact benn December came ni ko Zeynab daan defee moom dem na si lopitaan yëpp across the country the first baby bu juddu in each region in the country mu jox leen gifts def ñoom ay affaire daf dee dem di visit lopitaan yi in fact jëkkëram la gars yi di ŋàññe si yenn sax muy président Barrow ne the first time mu dem si lopitaan bi ñu gis ko mooy bi Faraba victime si bi Faraba amee ba victime si am tëdda si lopitaan bi si la fa Barrow door dem ñeneen ñaa ngi ko doon ŋàññe si loolu moom baro fo I mean going to the market ne dafaa dem ndug yeeg dem defi lii when the hospital is zero meter away from him mu waroon ko mën a seeti waaye first lady bi wax dëgg neex yàlla daf dee dem Gambia waaye ndax pour dem Nigeria boole fa lii is the concern, is what people are seeing. When we have some people that are very much concerned, we have some people that are very sick, no xam ne health condition get deteriorate. When this is the hospital of the Gambia RVTH, um, blood, this is how it looks. You look at this, it's very shocking, it's very disturbing and the like. But uh, loolu ya yàlla Ivasar, kon dinaa lijjanti audio boobu ma bàyyi rek nga commune ñu ah, ma lijjanti audio boobu noonu rek incha allah ma ñëwaat yéen a ngi di seetaan lu tax Gambia du dem soo jógee ci Gambian Talents ah, radio Pa Ousman Joof fa Iba Sarr nekkal leen ci gannaaw microphone bi Iba ñu dem. waaw papa Ousmane. Euh, mm-hmm. nit ñi tamit bu fekkee ne seen commune si rafetlu nañ ko fa rek xëy na mën nga kóor it am na yoo xam wax ko oo koo fite. waaye you are trying to put out that audio. Mm-hmm. or if not rek mm-hmm. li ñoo wax rek mooy papa Ousmane li nga wax la dem na ah, gisoon nañ Zeynab suma jaame moo ko doon def. ñoom ñu jógee fa maanaam mbir bi daal puusal ma toog la. ñooñu randu nañ ñoom toog nañ mu ñëw def something similar ak lu Zeynab doon def ñu gis ko mu dem lopitaan yi comme ni nga ko waxee yëpp waaye dafa am luñ bëgg wax. ñaawluwul nar a tax mu dem Nigeria maye loolu de Africa nin continent lañ is a continent isn't it Africa ñun war nañoo dimbale wante ñu ne ñeent suñu biir waaye question bi Gambien si di laajte du loolu Nigeria Papa Ousmane ñoo ñu uppa ba wis ñu si ay when it comes to uh, population wise Nigeria su dee ay intellectual la ñoo ñu ko uppa su dee ay jàngatkat la dina dinañu may. Mhm. su dee ay ñi nga xam ne la ñi nga xam ne ñi nga xam ne nga leen di dem di dem ñu koo gis ñu ngi Gambia and they are doing very well su ñëwee Gambia seen intelligence lañ day use pour play xool ko rek frame yooyu ñu daan defar computer yii nii yëpp ñoom ñoo ko njëkk ñoom ñoo njëkk a set up classes mhm. foofu la ñoo waxee su fekkee alal la Nigeria ñoo ñu ëpp alal because dañ am oil mhm. bu fekkee alal la rek Africa pa Ousmane mm-hmm. gaan Africa yëpp waruñ war a ñàkk ñun ñëpp dañu waroon di nampa ci ci teeni Africa yëpp dañu waroon di nampa ci teeni mm-hmm. Nigeria bi seen seen oil bi mm-hmm. bu fekkee ne rek Africa laay wax tey de waxuma sa Gambia bu fekkoon mbir mi ñu ngi koo doxal ci yoon mu ngee jub di dem ah, doo doomi africain si sax duñ génn di sàmba bayaan wala di ñaan Nigeria rek elloon mun nañoo dundal Africa yëpp c'est according to statistique lu mu wane ne Nigeria noonu la ko jël mhm. liggéey naa Costco Papa Ousmane mhm. Nigeria seen cinétos yi seen Christmas gift yi Costco lañ ko daan jëndee Costco dañ am hampas mhm. hampas start from thousand naa leen ko jaay kooku Nigerian boobu noonu cinéto la woon mu ñëw mu bëgg a jox fellow Christmas gift mu ñëw cos ko xam naa ñoom sax Nigeria ne or oh, whatever xëy na high class ranking moo tax ñu dafa dos hampas basket lu nekk moo fa nekk thousand pound bu weex tal la génnee fay ko. waaw jërëjëf waay nga teg fa sa loxo ma play audio bi ñu dellu si waat ma read some of the comments xaraab Sonko mu ne corruption is number one ah, mu ne my opinion Rohey Lowe joking ah, ah, moom loolu la wax xataab mu ne we are in more need than Nigeria. and so she should do the donation in the Gambia uh, mune dance here before you dance abroad um, Farmer Rafati mune what she did is palm tree shade dance yard before you dance outside Idrissa um, Gano mune this one it's very sad you know uh, Jatu Jete mune well done guys a mune Gambia is still in Seoul Gambia there is no new Gambia mune there is no new Gambia Jatu Jete mune good job uh, kon ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi nga xam ne yéen ñuy déglu di ñu seetaan duñ wax dara nak wente ku xaan si mi ngemba li ma leen doon wax ci gannaaw ñu déglu audio bi rek and will be right back don't go anywhere kinava kukudaskora udp eh, musola kumo jansala eh, na abaraka abaraka abaraka ala alama ala ye jo ila kumakan Ama malaika sele laati alama adina hadamadiŋolu sondomolu kono layim kumande mo toñaate fatu kamara jibo tawan pesu am enen no koye jayñol toñala e batamen ke bankoye keloke bankoye e dow ko be ke bankole bata bata be kam yake bankole yake fanal bankoye ɓariman karan ɗoɗo holo bemum tolo bemu kumsimolomo karambalollete e karandalge ñamen karambalolu adambaro ne usenda o e ñanta e gilale ino batata e batata e kolaya bere take kaso fela enayi e bula de tata sénégal jaralola e mankendeya e, e borolta e nata hanabi jato mankendeya emin folemto ñatiman sakunda yenta felele kera jele kamol dema bi kolle yani bita ayin do golle ñanta folola ñineli jaarola ɓawa hadamadema accendole mo nafa a kurantoma mo nafa fenna oto la nyunu la ñunulale kam fa sa ka bala fa ke e ko e kam mbiyaɗi ñolle mum ɓe kiloge fo ɓanko ta kayra kono me fan soto man mancende ano mino man kiloke ɓanko e oliɓa oliɓa injo e kan mene yakkilo ke banko e wol ɓe bataren ɓe kurandi mancen ɗeya woto ñanta fele makke lela ka fanan mako e tata e so jara lola wawa ni ɓe mbullarenten fana mo kendola ka mona fa mo kurantoma mona fa fenna eɓe kendeyade wato men na e lota banko e kelo ke banko e e mankara ñañan e fana e tewol siti ko foye la banko la je fo banko fo en kelo ke fo en dikkite to ya jamɓe bota banko kan sila ni tol na ta bo kaso e findita e man jati kende to toñala fatu kamara e man jati kende asoda fatu kamara wala mum to laya e kompinoti ntol fauna ay e kompino mo wolti jibo tawon bara man kende a an wolu ka bedi la foru moto fa ke keneji jaka jato man sakaya moto nyanta miral kila wala e taka persida wala muso men foten e fatu babaro nte ko be nyinare ne o maalon ko moolu le kelo ke fo mi atinata kirano e leddi fosi leɗɗitti ɓawa bi kilo to ni aji abita nigeria e abita abita ala de kelaw to e nigeria fo abita olla lopitanol kono aɓe sohla waɗila mol laji akamela baa kanje mol ba jiɓela yannaɓe e o bata be kela ñantinalaw kela kambiyankolle ek min batata ɓe men ɗila walla ñanta o ɗila min batata ñanta walla lakko atentila janni ala bafude min man kunno kamɓi a kono fa bita nigeria bita bafude kelawɗo ina na bita bafude kela nigeria ɗum tumalata kesita persida yala <laughs> fo e koɗo sotono fate koɗo sotono fomi anaɓe bola jama bita ala bafude kela nigeria mm-hmm. kada futa walla lopitano kono aɓe feŋol ɗila walla lopitano molla E kaɓeraɓe lona kan aɓe contanninge aɓe kelawol hen otumo jalloppitanomol wolle jam mole min ɓe batare molle amannala bafuɗeke kambiya jam ay kambiya loppitano walen kurantol walen a ñanta men kelawol yaa kewol hen min ɓe kurandin jam fana min ya kelo kata e amanta wol jiiɓe yasiwol bataɗaɗe jiiɓe fatou babaromoge fof fatou babaro kata nigéria akatara wotulo pitano kono akatala bafude e kewto kata o salibile sono keta jiriyande oto kambiyankola aliŋa diyamu diyamu kuwola ben dala ala fo adambaro fosiledi fosiledi e bala famoli ye mira kama fankeno ñin temanto bira futute yanin mbitema anamanan salibile sono keña nda anamanan bafude fananke ni aje biya bita alkala na jiriya ala takola kambiya musolle mo otakambia musoli yakata ekuwa membeke fombi atafutata ateketa foselediti otanyantanya hakilo faila koma kambia musoli ani mene kuranta je mene bata soto mene mantoro soto fatu kamara nyon no kon janyul musoye ha melo mbari yakuma kawo men fata nyon kuma kawo dun tanta fara mbalola le malla folo nyaanya mbari bi ngi ngodi yalla moy be bota bawo ñu men ketol fatem amay lon tente fewul beto nteni bebe kompina kiliŋola kono faatu kamarala mum tolla yaye kompinoti tolni wolele ka boye ni ka wulu ni ka kuwo beke ke bi wolu be daamen eh. bebe man sakunda daamna ala kan kiila kan ayenna faatu kamara ñula aye ma koy fala siiso jaati kendeya la ma fo si moto seeno e eh. ma fo e korda seeno e eh. hane na ba ñaame siyo fama keyen ba ni felu man kala ni man ɗo ku sotono man sakunda kon mm-hmm. ba ni jaati kendeya soto jee woronto e korda ile korɗal ɗo kuye woronto mhm. ye ye, ye moto saye yaadila o beɓe ni se sewondola e, kono bare hani ɓe mbi kono ɓe siri ɓe batuna ko ɓe ɓatula commission e, ola commission o malla kurano ɓaritol jatol man kende mi sikunda fanagen taw kilala ɗo koti alaw bala fajiɓe nayi sasatol ye kemakoye fora sinni so jati kende ala ɓe usen daɓo dalna a komra ala ala molla alamolu jiibe alamolu jiibe fo simuru fo fola siso jaata kendeyal alamolu man kendeyaa de aba londe ne balim fanan sa faye bankomolu sidiyamu musolu sidiyamu fanan sinna daniro ke anin na wo sida ka akumo futa nema oton mbal konto nambal tentulambaligey kon ñu ngi leen ay bëggee di leen dalal ci beneen yoon ci lu tax Gambia du dem show fii ci Gambian Talents TV bi Ousmane Diouf ak Iba Sarr nekk leen ci gannaaw microphone bi ma làppatoo jigéen ji lim doon wax moom maa ngi ne Faji Kunda si gannaaw iboo Town la dégg ngeen ni mu ko waxee mu ne Jibo Town ñoom ñu ngi consider seen boppa ne ñoom ñi jàngut ñoo nekk victime si Fatou Camara Nogoy Njaay ak ñoom seen nga xam ne ñu ngi doon xeex ak ñoom Lawyer Darboe ñu jàppoon leen tëj leen three years ñu bàyyi leen amul luñ dajut ci kaso gi amul luñ dajut ci jéel bi ñoom ñooñu ñu bàyyi kat seen yax yaa ngee métti seen yaram a ngi métti dem nañ senegal ñëw faju dara xewu fa ñu ngi sonna mu ne dégg nga bi Fatou Camara di dugga foofu noonu ci forum bi di wax sax ñëpp dégg a ni doon waxee ñii wéruñ mu ne on est normal de sax ñii laajtewuñ dara waxuñ ñu jox leen oto jox waxuñ ñu jox leen kër Why if everything was normal sax war nañ leena mëna lulu. jox loolu ñu ngi jappane ñom liñ jangut moo tax joxuñ leen li ñu ngi jappane ñom liñ jangut mo tax amuñ opportunity bi. mu ngee ñaaxtu nguur gi di ñaaxtu Fatou Ba Baro ne ko kañ nga fi daan celebrate birthday kañ lañ mo sa dégg Fatou Ba celebrate birthday be bu sa jëkkër rawti na ngeen da nga dem Nigeria di celebrate birthday so kon jappalel ñom Fatou Camara suñ yaay compine nga jàppale ñoom Nogoy Njaay ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi fii di sonna suñ Gambia lopitaan yaa ngi fi ni ñaa ngi sonna bu fàtte dimba bu aadama fàtte dimba bu Loya Dabo fàtte dimba nañ fàttaleku ñu jàppale ñi nga xam ne dañ sonnoon ak Gambia as whole loolu lam ko nekka di ko ñaax ne ko Nigeria gi nga dem noonu kat waaye according to the audio they are thinking ne dafa dem Nigeria purposely pour celebrate birthday am foofu I will remind folks again ne jógul purposely pour dem Nigeria pour celebrate birthday rek loolu taxul koo jóg li ko taxa a dem Nigeria jëkkër ji la àndaloon xam ngeen ne président Barrow duy bàyyi madame Barrow gannaaw fu mu dem dina ko yóbbuwaale and part of that doon jéem a network with the first lady of Nigeria ba tax mu àgg extend loolu kon lii mooy kàddu gi Iba dégg nañ lu kooku wax ñu ngi leen ay béggee yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan ci Gambian Talents ah, bu baax a baax a ah, mu ne di government fail Oslo loolu la Fadi Famara Fadi wax hata mu ne very sad Sally ah, Mina Jeyte mu ne Gambia government should do something Gambia we are so so far so far long time Khatab Sonko mu ne this is making me angry really Famara mu mama is right Ibrahima Sinyan mu avance dafa be avancement day bette Ibrahima mm-hmm. mu ne avancement day bette waaw pour mu war a dem foofu Famara Fati mu ne very sickening Steve Mendy mu ne the Barrow government is failing Gambians this is the sad truth ah, Junkunda Kebe mu ne very very sad ah, Famara mu ne this is very sad Dabo betrayed his people ah, moom loolu la wax mu ne Dabo dafa betray ay nitam Best Boy Touré mu ne too sad African leaders are like all alike African leaders are all like this They start their lavish lifestyle when they are entrusted with public funds, greedy and self-shadow. Stephen Mende mu ne vote Halifa into office. Gambia open your eyes. Adia Mosiata Mune very sad. Adia Mosiata Kijera Mune very sad. These are some of the um, news that are coming out. Now, one thing. First lady went to Gambia on taxpayers' money. supposed fele Nigeria called Nigeria on taxpayers money wala su dee du taxpayers in the past wax naa leen ne somebody that is an insider si biir nguur gi leeraloon na ma ko ne nguur gi dañ war a génn pour wax lii seen tukki si bari du dee jógee ci kofa si Gambia government ci taxpayers money ñu mel ni Saudi Arabia ak Kuwait ñoo dee donate gars ñoo dee help gars with transport with planes ñu dee demee ñoo ko dee fan di jógee ci yi defe but still first lady is first lady Eva if you look at it on the other hand birthday is her birthday each and every one of us can celebrate your birthday anyhow you want waaye wax naa leen si gannaaw bi ñoo wax affaire yi roxiloo ne when you are a public servant when you are entrusted with responsibility so nekkee njiit nga your yow lépp def is gonna be translated as a policy is going to be translated as the stance of the state or the stance of the city or foundation and before that matter. Amna every right nak pour them celebrate birthday and fepa fum ko buga celebrate. Amna every right pour them Nigeria, them Ghana, New America, them China, India, Indonesia, mo xam fum buga dem pour defa philanthropic activities. Pour may today si jemi bopam la. Where even so, they may be Simin will be first lady be. So they may be Simin will be president be. So they may be Simin will be minister be sibopam. Wala will be vice president be. Linga def lu bari dañ ko jëlé as the stamps of the people. The motax ñu wara bay xel li ñoo def. Da gis na mom lim def. Lim ñoo tombel Eva with Gambia not having these bags. Té fogg na be ci islam si bopam. Soy maye. Soy joxe sa. Dafay indi ay gaaf exactly. because Gambia is in their need. Whatever she gave out in Nigeria, however much it is, xamuñ ko give back so lañ just give back to rafet yoo xam ne moom nataala ma fa they are customized pour ñu war gis loolu moom dafa am responsibility ndax right now ñu ngi ko jiiñ doma waruñ koo fekk muy soccoo eeli liir wax dëggaa neex yàlla yofi waane land road first lady yofi waane land road de It's your money Naksure Lurlasa birthday. As long as linga def sah, you did not do it on taxpayers' money. Jelulo xaalisi réew mi dem dugal ko si One can understand. Birthday am la Eva, xaalisam la. She can choose to celebrate it anywhere, anyhow she wants. lépp lu def ci xaalisam su dee xaalisi boppam la mun na def but on taxpayers' money is this really catered for is this really catered for pour xaalisi taxpayers ñu jël ci dem di ko fayalee Nigeria Nigeria ñu ñoo jàppale nag they have done a lot for us time yi am impasse bi amul lu Nigeria loolu bu Nigeria play wut si lii in fact we all saw the first economic soldiers that came jet fighters yeeg yeneen yu ñëwoon yooyu noonu yep. yu bari Nigerian troops yi were right there in the Gambia def nañ fa ay few weeks ba yaayaa génn na si lañ commencé di leen recall ñoom ñu bàyyi fa ñi fa des sénégalais jiite leen waaye nigerian troops yi ñoo jiite woon opération boobu noonu bagage yu doon indi foofu noonu di leen war a yu sax yu bari jet fighter yi say, su gis ba tax mu ragal yu bari jet fighter Nigeria yi la so they have been there and even before that Nigeria had always helped Gambia I remember man growing up Farafenye hospital bi si jamono jooju time boobu health center lañ amee ay docteurs in Nigeria ñoo nekk Nigerians ñoo nekkoon foofu they have been helping us technically to a great extent technical expertise Nigeria lu ñu yàgg a provider Gambia la military bi the same thing health sector bi the same thing education bi the same thing gis ngeen ñun ñëpp ay teachers in Nigeria lañ amee woon the same thing with the judiciary Nigerian judges ñooy ñëw Gambia def nekk so they have been helpful to Gambia to a great extent and our problem is not with Nigeria but no matter how small our First Lady should definitely have been able to know these basic things are going on and it is wrong in my little mind to see the First Lady of the Gambia going out to give out gifts and other stuff to people of other countries in their beds when we can barely afford to have the basics ndax lopitaan yooyu ku leen gis nag ak ni mu demee di nga xam ne namuñ lu bari wax naa leen daaw ci time bi maa ngi Gambia bi ma fa nekkee dem RVH am suma mbokk mu doon am doom foofu ma gis ñaari nit di bokkal lal ma gis 36 nit 36 nit in one room benn nurse di leen take care du dëgga du yoon pour first lady bi di war a dem Nigeria di def yenn yi Iba Sarr some of the comments rek ma bàyyi la su ko defee nga am xaas ci xuus ci rek yow it Awa Jallow mu ne well said um, Hataab Sonko mu ne it's very important to cut your coat according to your size Famara mu ne she never celebrated birthday why now why is Baro taking her anywhere she is going Uh, they still on honeymoon or what Uh, best boy to the money, but it's better to help the people who elect your husband uh, Sylvia Grand money very sad Uh, where did she get the money from? The money is Gambian money. Steve Mendy mune, I'm feeling sad now. jërëjëf loolu mooy semaine si nga xamne dugga ci nañ Iba Sarr ma bayla rek nga xuus bala ñoo dugga ci ndey bi la yéen a sétan lu tax Gambia du dem so fi ci Gambian Talents Papa Ousmane ma jekkale rek fu ma emoon ci Nigeria Hampasté mm-hmm. foofu la emoon mm-hmm. Afrique la ñuy wax mm-hmm. te yeneen dëkka su amé soxla nañ dimbal ñun ñëpp seet Nigeria seen sénator si ñaata lañ lay am we are watching demuñ fa de waaye seen movie can give us a brief story. Mhm. of their lifestyle. ah ok. Nigerians live cheap life. ñi ko am dëgg laa mhm. seen benn moto rek. comme lu ñu war a di corruption in Africa ba Nigeria waroon na moo fii yëpp sax. Nigeria waratoon na am ñu ñàkk. am na fa nag dëkk boo gis am na ñu ñàkk fii sax Amérique sax am na. Mm-hmm. waaw waaye Nigeria rek seen sinéto si lu ñoo am laa la a Saida Fatou ba wis ko mm-hmm. ñu jeexalee foofu mm-hmm. obviously wax rek ne dinañ dimbale la te ñu ne neen waaye ma ñëw ci yow li nga doon wax li nga wax téeméeri dëgg la waaye am na fu ma àndut ak yow birthday yam la war na koo célébrité fu ko neexee jamono yi Fatou Ba moomul bopp utee naa démba démba Fatou Ba ñu ne mu doon liggéey ci tourist whatever la doon def restaurant or whatever di dem dafa amoon dafa dem liggéey taxañi indi Adama Barrow liggéey taxañi indi lu tax bu daan dem tukki di naaw di teg te Adama Barrow mu ngi woon si Europe bi di célébrer birthday yam bu ñu naxante bu ñu wax digga nañ ko a teewaat parce que ñu xool buti nit <laughs> fii di study nekk mu wan koo mun su ko defee mu ne dafa nga moom jëkkëram la woon lu tax du daan tukki di jaabante di dem ci dëkk yi di célébrer birthday yam di ko wane waaye jamono yooyu Fatou Ba am na lu mu tal lu dul birthday priorities yi la doon tal njaboot bi la doon tal li ñoo lekk ak li ñoo naan ak li ñoo sol ak li ñoo dëkka Pa Ousmane there are priorities and mispriorities okay jamono yii nii Gambie dafa am li tax ñu call for a change mm-hmm. a change pour moom muy celebrate birthday yam mm-hmm. dëgg la she didn't went there comme la la ñu woon a tombé Pa Ousmane tey yaa ngi bitim réew soo waxoon ne nga binda si sa status rek nga jotee yaa nit ne kill sa next door neighbor dañ laa investigate arrest la ba nga xamante ne set nga mm-hmm. because onta nga ko evidence boobu noonu la dafa birthday yam lii mu tombé te in an another way round birthday celebration lañ ko mun a ooyee because it falls on her birthday it's a celebration loolu mënuñ ko skip or mënuñ ko brush out we have priorities ba pare Pa a lot of funding coming in si li nga xam ne maanaam mooy hospital boobu noonu charité boobu noonu muy a lot of funding coming in there mm-hmm. look at suñ hospital bi Pa Ousmane peinture yëpp a ngi buyeeku yëpp a ngi ruy hmm. nga dem si jigéen yi wasin hmm. ñi ngee jooy guddi jooy bëccëg people are crying this is why they yell for a change hmm. su fekkoon ne ñoom nii lañ bëggoon defa ak ñun ñu bàyyi fa yaayaa jaame moo ñu gëraloon mu ñoo def muy muy bëgguma men son lu ma bëggoon men son mu ñoo gaji gajee di ñu kati katee di ñu màtta di ñu di ñu ñi nekk ci lali lopitaan yi di jooy lii lañ doon ñu eb seen i njaboot ne ko dem leen ñu vote for a change te Gambia nekk ñoo xamante ne dañ gëm yàlla te óolu ko gëm yàlla dafa am waaye te dañ ko óolu na ñu boole ko ci yar teggin discipline bu mu seet ba keroog yàlla ñëw uyu suñu am na ñoo xam ne saay bu ñu kàbbaree allahu akbar yal na fi yaayaa jàmmi jógee lañ koo daanele saay bu ñu selmalee allahu akbar dinañ julli ñaari rakka kurus bala ñu tëdda salaatu wirda ko kurus ko pour yàlla jëlee ko fi te yàlla nangu na suñu ñaan lii is a big insult waxuñ ne warut a may Nigeria de but time hasn't come yet pour mu dem jox leen lali loppitaan yooyu mu dem mayee dafa war a laan gis nga Pape Ousmane su ma ñëwee sa kër comme li ma daa wax ne sooy àndaa sa nawle dangaa xool sa nawle mm. she is a first lady Nigeria seen first bi ak moom duñ benn lopitaan yi mu ko yóbbu ba moom mayee gis na ko beeti dañ am ba ñun Gambie suñ beer reer si sa baaxuñ <laughs> gis nga nit ki sooy ànd ak moom dangaa gëstu sa bopp xam sa numéro carax xam nga daala mu em la rek du benn dangay xam sa size. moom la waa ji wax ne code your code according to your size. sa size la em moo tax may la moo tax ma ne doo xeloo ñetti mbuga moo am ci biir wët woo kon Fatou Ba tamit na indi wët woo ba bu ko em bu ko jot ak bu war a sol. Mhm. bu ko jot bu ko em ak ban la war a sol. Mhm. nañu ci bu baax baax a baax papa Ousmane. Mm. loolu la it's not the now time pour mu war a dem ñun waxuñ ne bu mu may Nigeria di ax akay te it buñ ko may nañ ko may ñi ko yelloo waaye maye boo ko may ñi ko yelloo islam moo ko njëkk a def ne wanewu la du maye kon islam foofu aate na ko moom Fatou Ba. Mm. julit la de duñ ko yóbbu ci christianité pour mu aate ko de julit bu mu doon foofu lañ ko njëkk a yóbbu pour mu aate ko mu ne bu leen dee may ñoo xam ne ñoo len tane. Nigeria ñoo ñu ëpp alal ba ñu ñoo wis laa la wax ay wis ñu meloon ni Nigeria waxuma ne bu may Nigeria de muy Nigeria muy Sénégal muy Guinée muy Mali xakay ah war nañoo may waaye nag waxtu may a jotee ngut Iva Iva Diouf dana politicians will always be politicians Fatou Ba lim def nii internally dafa gaañ Gambia ak Gambien si Gambien yu bari duñ ko rafetlu waaye externally dafa baax ci Gambia ak ñoom politiciens si because one comme ni ma la ko waxee Nigeria is three times bigger than Gambia more popular and more famous than Gambia more structured more established than Gambia more experienced than Gambia first lady Nigeria ki ko follow ak mboolooyam pour kooku binda si statusam tweet or def whatever mention first lady ba bring out loolu ne first lady Gambia moo def gestion bi loolu PR la pour Gambia tax na waaye ju toogoon fële te xamut Gambia mu stadéega Gambia wala fàtte woon affaire Gambia mu doxee si xam Gambia biir Nigeria ak biti Nigeria Nigeria is a model for Africa suñ ne Africa you talk about Morocco you talk about Egypt you talk about Nigeria ñoom Sénégal sax dañ leen dee tuddantu waaye Morocco Egypt Nigeria South Africa these are four countries in Africa yoo xam ne soo ne Africa xel ci yi lay dem ñaareel nga laaj nit foo dem ci Africa wala fan nga di these are the countries they tell you Nigerians are known for both good and bad worldwide nag dem nañ to the highest levels of success dem nañ tamit to the highest level of criminality ak yenn yi so turi Nigeria Gambia first lady Nigeria war a tudda suñ tur war a showcase yenn yi si lu rafet externally dañ koo gisee lu rafet amaana mun naa jural Gambia lu bari ci connection waaye we are talking about immediately am na yenn situation si soo si dee toll soo si tolloo yow fiito bi doo koy tal tey nga tal tey mooy story bi ma nettali woon rek ne jigéen ji ma déglu si radio bi ñu ko interview di ko laaj Amérique fii Seattle fii di ko laaj lu tax muy càggatu ne ko ndax xamu ne dina mun naa am AIDS or whatever mu ne journaliste bi yow da fayantu yow yaay toog di taal AIDS I would rather ma dem am ak nit sex ma am AIDS ma dunda yeneen eight to ten years twenty years dan ma toog léegi aw ma lu ma lekk aw ma lu ma naan maag suma njaboot gi ñu ñëpp ñu dee léegi ma am AIDS dee ten twenty years time moo ma gënal dan ma dee léegi maag suma njaboot so Gambia dañ tollu situation boo xam ne it is there dañ toll the situation boo xam is desperate Why li moo it can have a positive impact on Gambia Munna na foundation and muna am more help internationally and you never know Munna na Nigeria itamit tamit first lady bi decide pour ñëw uh, return the same gesture The first lady am uh, Baro def xaalisam su dee mom la génnee jëndee ko gift xaalisi foundation am these are all things you have ne dañ ko the first ladies foundation boole woon nañ ko si budget bi national assembly bi squash ko out it's not a national position it's not in our national um, constitution there is no such position in the federal government in the national constitution amut position amut fa it doesn't exist dañ ko dugal foofu su fekkee dañ ko def we need to start learning to put things on paper the foundation is not registered and is not in the constitution. One. The Barrow Youth Movement, the same thing. Suñ National Assembly members yi ñu challenge You look into these two organizations the Barrow Youth Movement and the First Lady Foundation You set ko set ko set set source of funding because they are doing so much right now they have established offices they have established i am am ñu ngi amee seeni moto ñu ngi am staff yoo xam ne ñu ngi faa liggéey ñu ngee battery around the world and this is something that the National Assembly needs to look into where is the money coming from to fund these two institutions when Gambians are dying in the hospitals dinaa leen playal can kanam ni vidéo passé bi Iba Sarr ñu gis loolu noonu ma bàyyi la rek ñu tënka amin ku bugg a show bi rek 678 608 3322 pour ñu si nekk America 678 608 3322 ñu nekk Angleterre 161 818 7 1618 187 077 ñu nekk Sweden 08559 26651 wala ngeen jokk ñu Skype Gambian Talents am um, uh, radio yéen a ngi seetaan lu tax Gambia du dem so Iva Sarr ak Pa Ousman Joof ma bàyyi la Iva rek soo amee loo si yokk if not ñu dugg ci beneen topic nga xam ne wax yëpp uh, long run nu uh, ko jural waaye xam nga ne am na yenn saa da ngay def dara foofu la nit di xeebee dafa xaw ma nag xam nga tey kooku su ko tweetee with all the people demal nga seet tweet bi ñaata nit ñooy dem def research about Gambia ba pare ñëw di ko challenge seen jigéen boobu dee def vidéo di di di wax te lu mu dee la muy Adiola or whatever di nga ko a te di nga moom li moo wax because moo laa woon ñoom seen boppa tey su ñoom def research di def eh, demal sa team bi nga def ñu def vox pop on it challenge naa la nga seet ñaata Nigerians sa ñooy disagree what li nga xam ne def na ko and they Nigerians Mm-hmm. because ñoom ñi ngi dëkk si dëkk bi gis nañ dëkk bi gis nañ dëgg dëkk bi comme li ma la wax la bëgg nañ mu may na jiw waaye waxtu bi moo jotaango de ay ma teg ñu ne de premature government. allo. oui allo. Pa. waaw miital sa bopp rek nga baalal ñu. Mm-hmm. ngeen balal ñu rek dafa am call bu dugg ci woon nonu ana Iva Sar, dafa am call bu dugg ci woon nonu rek Iva mën nga delu ci waat hello kola parce ci sen nombre yi nekku di dox ma ngi try di UK and US one way ben nekku di dox waaw ah, nekku jere ah, jërëjëf thank you for bringing that to my attention wa ba na ndax mun go ahead ba naa dee this topic of the how much firstly le how much, naka naka waa yow ma ko sa xeeb na <laughs> waaw go ahead Go ahead. Wow, wow, thank you very much. Topic bini man ever since bim hewe. Eh? Mm-hmm. Pa man don set ben platform mm-hmm. moko wa moko moko critical analyze. Mm-hmm. Why Gambia ben media house. Ne ko ko wax lolu dina sat. Mo won la Gambia ni ka dañu dof dof lu ga wara wax xam nañ ko lu ga wata wax xam nañ ko. Fortunately bi am na right am celebrate na. Mm-hmm. waaye hey gisati Macky Sall dem koñ fenn. Mm-hmm. incident mu bàyyi ko fa dem ñibbi. Mm-hmm. these broad bags yi nga naan wane nii. yaa ngi wane dat switch loo nekku tey de. loolu dañ ko yàgg wane. waaye Gambien si pa lu leen itteel lu leen itteel rek duñ koy nangoo wax. lu affecté lu seen mbokk rek. duñ koy nangoo wax bon lii dafay yàgg. we are now at the peak level. Mm-hmm. ba moo ñàkk ñu ko waxantoo. Mm-hmm. dañ ne déedéet keroog bu yàggul amee benn jigéen Amérique dafa call UDP yooyu seen talk show di ko fa wax gars di ko fa haraas ñu ne ko nekkul digga laata li su nekkoon digga why are the media houses not talking about it. Mm-hmm. which su nekkoon digga. laata media house yi nekkul di ko waxee. number two bii force lay salbete ba DM joxe ay personalized things yëpp luñ ci gis. next day global properties mais. force léegi five hundred thousand races. Mm-hmm. léegi tey am na ku ma waa Pa laa tax diaspora bi ñuy def lii nii nañ toog tee suñu loxo. Mm-hmm. government bi xaalis fa ba pare di seen Gambians ñu ñoo ñu ñoo help. Mm-hmm. gars yi ñun dañ ñàkk a jom wala ñun dañ bëgg suñu réew. wala ñun dañ dañ what how do we define ourselves as diaspora Gambians. Iba Sarr démb tey mu ngi wër Angleterre. Mm-hmm. one point to another response. Mm-hmm. kaw kaw su mu tam same thing demalama gars call pour Wakefield. mënu mm-hmm. maa dem ma try pour call Manchester gars yi def awma fa kenn. ma try pour call Luton awma fa kenn. so la la nga tax this government yàpp ñu on waa ah nañ def diaspora they will come to their aid. la blood bag su ñàkkee du loolu de blood moo ñàkka tey jii Gambia ah, kuy fa ëppale tey ten foo yëpp dañoo dee dis lii xam nga xam nga lii laa tax mu ginnaaw film sax that guy from the Akira team ñoo ñoo ko ginnaaw filmu doo ñëpp doog ñoo gëm dinañ ñëw dinañ ñëw ci loolu dinañ ñëw ci loolu fale ñoo dugg si next mu wokk kon xamab mu wokk ko xambaay loolu waaye gis nga Gambia force de départ fii la fii la ñëpp di ko taga naan dafa am lapitaan di clean lapitaan di di di di lapitaan guddi suba teel ñëpp di taga mais yooyu daf len nanka buuli africa bu ku len taga they use buuli africa they use like a bait nga comme sooy napa jinn nga dafa jinn bu ndaw ndaw nga sani ko pour jappalen that's how our politicians are like te gis nañ ñi nag pra then disappoint the gambians man i was expecting the first lady with all her love for gambia and the hospital with all the promise when dafa bill dafa Gambia is, ees am bi from that list mouth, the CEO foo ne I mean, by the bi li moo def mooy ne ah xaaral ma spend ko ak waa Banjul xale time? man last news if I feed the children maa don't be. if I can do that we turn down the streets the first lady could have go there and see those children ñi nga xam they are less than three years old ñu ngi lekka maalo si lopitaan bi amuñu lekka xam nga. Hmm. these are all things yi nga xam ne ah it was expected. Mm-hmm. yaa jël lu mu bon bon bon ba diem dafa def Gambia loo xam ne ñëpp dañu ko waxantoo soo moo tax tey jii kuy wax si bëri yaa jël pàcc lu ndaw ñu xool ñii wat kan du man baag yi boo gisee fausse de dama ma foog ne photoshop la waaye boo gisee ma ne ah jigéen bii de bett nañ waaye nag affaire nguur yaa moo mel noonu ñun Gambia su fi nekk right now ñoo war a am ñoom. yaa ngi dooree affaire bi lu xaw nag waaye dama si bëggoon jox laal tuuti rek pour advice primary ñu ngi laa dégg ah. waaw affaire bi laa bëgg wax rek ne ki ko advice ak secrétaire ne bàyyi xel ne léegi dafa nekk si position boo xam ne is a high profile position nga wax yi wax yoo xam ne yes out of office context is joke ba su toogee si kaw pavilion di ko wax is a policy and she meant loolu laa ko advice te amee woon contact na ko ne ah anti nañ bàyyi xel again yi fi dafa andi dafa jeex yi fi pour dafa jeex tey Gambia yëpp ay foo gina ñu gina ay sestal man lu ma naxay si Gambia nga bàyyi xel xam ne dafa toog si place buur mooy meeyo te buur la los meeyo buur la bu mel nii yaaj mi o bu mu mel nii ñeneen ñi am na de yaa ngi ko wax léegi daf na fi history na ko maintain na make a legacy sa baay fi defoon lii yow loo fi def. jërëjëf sa baay fi lii yow loo fi def. Uh-huh. te affaire de Akira. Hmm. soo fa ñëwee man daa many things yi nga xam ne gars yi bëgguñ wax ko. Hmm. right now ba Tuesday. Hmm. waaye naa si ñaamaas tuuti rek. jërëjëf ba si kanam. jërëjëf tamit. daf na a good job tey mm-hmm. ak démba mm-hmm. si un essence sam jërëjëf for Gambia mm-hmm. waaw ak ak ak di whole entire yéen seen jiiti jiiti pii bi su soo neexutoon du ko def bon yéen da ngeen accept mu def mun te mu bàyyi jikaram wéeg fi dafa sori two hours la dama ñëw au train yëpp lan for Gambia waa Gambia yi nag suñu mun tee respect xam ne ñun in the absence of the government we can act as a government nañ ñu bàyyi <laughs> jërëjëf jërëjëf <laughs> ko koy Pa Ousmane Thiam di koole foofu ca Angleterre ah, ñu ngi koy béggee bu baax a baax a baax for ah, his contribution kon yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents um, TV Pa Ousmane Diouf ak Iva Sarr nekkal leen fii ci lu tax Gambia du dem show ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax a baax dinaa check loolu right now Iva Sarr rek um, today yaa ngi fi dégg nga lu Pa Ousmane wax. waaw mm. kon luñ doon waxoon rek Paa Ousmane Diouf lii moom mm. amul dara lu ko dina jagal mm. wax dëgg ne maye du wees te maye du passé Paa Ousmane mm-hmm. maye du wees te maye du passé waaye nag nañ jël kon waxoon nga ko nag ñu la yow mi ko waxoon ñu fàttali leen ba tey nga ne gars yi am nañ loxo nga ko tuddee ween boo ko ko wax ne nga di final ko ko blueprint ñu ngi leen ñaan ñu follow the the the priorities on the blueprint. ñu mm. bañ a misprioritize and they are misprioritizing uh, key points yi nga xam ne moom la Gambian sa wala key areas yi am xam ne. Mm. Gambian sa so desperate. Mm. over oh desperate so desperate. in need of it in need of them. Mm-hmm. nañu dimbale ci yooyu ci si blueprint bi. Mm-hmm. comme li nga waxee rek Papa Ousmane. Mm-hmm. the Gambians dañ jooy ceey te deret te te bépp rongoñ mm-hmm. te ñii dañ taxaw ñu waat ñu ne ñu dëkk bi doon demee ñoom ñëpp gis nañ ko Fatou Ba dox na ba daalaa mi des yooni Marseille poto poto yi yëpp dugg na ci Pa Ousmane ñu fogoon nañ ne ñu ne ñu go through lii ñu ne go we feels it knows mm-hmm. it mm-hmm. moo feel na ko waroon na moo know the pain uh-huh. of the oppressed because she was one oppressed baadoolo la woon amutoon ah, moto bu ko yóbbu taxi la moo jël di eeg di wàcce di dugg ci moto yu mu overcrowded ba tey su toogee AC di ko fuuf boo xam ne courant mag yaa ngi na moo seetaat démb fu mu nekkoon ak la nga tax mu nekk tey ak mu mun a sóoraale ëllëgam gis nga ñii suñ defoon lu ndaw rek Kaosman duñ doon jóg. ñi suñ defoon lu ndaw ñëw rek toog fat fat def li ñoo def li ñu war a dugal ñu dugal nit lañ nag dinañ am erreur dinañ am mistake mm-hmm. from those mistakes la gars di di di di di dem di kon duñ mos a wàcce borom five years bu mu doon wax dem ba ten to twenty ba thirty years sax because Gambien sa bëgguñ change mm-hmm. Gambien sa ah, bëgguñ change barki dem boo njaay la gars publish polls de ñu ne 65 percent of Gambians are happy with President Barrow they like loolu noonu ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko def ndax is that is is is that ñun loolu true is that loo xam ne Gambie sixty percent of Gambian people will be pleased with them sixty five su digga nee yàlla waaye tamit ñu wala ku du kuy lekk nit kuy lekk xorob di nga juum moo tax ñu nekk nit xëy na si ko gite dee di ko gisam di ko géeru ci social media bi dina tax bu ëllëgee du dee nekk ñoom nag Pa Ousmane comme Pa Ousmane Thiam wax la ñi nekk si seen gannaaw ñoo leen de sonal lu bari. paatu hmm. ba dafa am idée mu ñëw nga ne ko defal lii dafa am yenn idée yi kooku wax moo war a seet. Hmm. kooku war a jël a large scale mu xool yow sa position ko. Hmm. waaye soo ne indi lii rek ba pare yes a place bugg a position. wala nag bi suñu jiite wala ñi nga xam ne. sës nañ rek ci ñun dañ leen dee bugg tàng. ñu tegal mhm. la ko suñu baaraam ba ci kanam su ko defee loo bëgg a ekkati nga ekkati ko keneen a mu bëgg indi li nga xam ne maanaam contribution nam ñu waxtaan rek jàmmale ñooy jërëjëf Eva ñu ngi lay bëggee yéen ñi déglu di ñu seetaan ci YouTube bi ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax yéen ñi ñu toppa ci Facebook yi tamit ñu ngi leen ay bëggee lu tax Gambia du dem show la Pa Ousmane ak Iba Sarr nekkal leen ci gannaaw microphone bi ñu ngi waxtaanee kii di président baro jabaram di Fatouba Barrow li nga xam ne mi ngi koo def dégg ngeen jigéen di laaj ko ne kañ la daan celebrate birthday yow wax nga Iba lu am solo ne am na jamono kat moom dafa dem lijjanti indi baro dem lijjanti indi ci jamono jooju taloon na leneen lu dul celebrate ay birthday taloon na leneen lu dul celebrate birthday so lépp loo xam ne du ko daan def bi foo mu nekk first lady ñoom dañ toog gis seen boppa ci présidence bi comme ni ko Barrow waxalee boppam ne a ak Konole kon ñu war a xam loolu tamit ne nag askan wi ñoo fa teg te jamono jooju dafa passé de jamono jooju dafa passé waya Gambian sit and just um, uh, seetaan ne buur la lu ko neex def dégg ngeen ñiy kaas noonu they feel disappointed ñi nga xam ne ñoom dañ xeexandoor ak ñoom ñi nga xam ne bi ñoo xeex mu metti ñoo fa nekkoon ñu ñu ngi feebar ñu ngi dee kenn kenn victimes si Yaya Jammeh yi ñu fa barki de boo njaay lañ jógee future MC Cham former minister for the PPP ci lu fi def bi dégg ngeen li wax MC Cham wax na beneen gars yi dañ ko doon bugg a dóor ci NIA e bi kenn ci ñoom ne bu leen ko dóor ci mag la jël leen a tighten chain yi ngeen ko chaine muy handcuff bi mu ne gars yi tighten chain yi ba mu dugga ci loxoom ba mu bugg dugga ci biir loxoom yi looloo ngi marqué ba tey paa bi dafa wax ba mu yàgg mu dóor boppam mu saay commencé mel ni ku bugg a jooy it is very sad it's right there go to our youtube page ngeen seetaan ko Tambambalu show with MC Cham the untold story of MC Cham wala ngeen seetaan ko si suñ page bi ngeen dégg li mu wax yépp ñooñu ñu ngi toog di xaar ak ñeneen ak ñeneen li nekk Gambia dafa over bari ma ne la Eva su dul ci healthcare system bi sax nag right now tey si suba si rek maa ngi dugal vidéo bi nii base gars yi ñu ngi koo seetaan mat leen ko rek play ko xanaa def ci foofu rek sax lu am solo la Eva Sarr base li fa xew nii this flood right there in Basse alone is something that is worth pour nguur gi seetaan ko pour nguur gi bàyyi xel jàppale ñooñu I showed this video earlier. Duma def dara duma play ko less than one minute. We see this video and you see. Yéen a ngi gis eh, fii lii biir bassin la Kama su tawee ndox bi su bëree nii la dee mel te képp ku gis vidéo bi war nga cee jàpp ba di gis lii waa Kaaba Kama dañ dee sonn trop fii ci bassin taw bi su tawee dëkk bi nii la dee mel gis ngeen gis ngeen naka fi lii képp ku gis video bi ñaan leen ngir yàlla ak jëmm rasulullaay bi jàpp leen ci ba nguur gi gis ko parce que nit ñi amatuñu jàmm fii ci base lii garage sabi la si garage sabi fii la affaire bi ne te gis nga nag euh, kama bu nee ba nga xam ne ndox bi taw na nii kenn du génn kenn du génn jigéen ñi ñooy gën a sonn ñi nga xam ne nii ñu dugg ci biir ak xale yu ndaw yi yéen a gis yoon bi lu mel biir dëkk bi yëpp a flotte waaye ñu ngi ñaan ndimbal ngir yàlla ak jommi rasulullah bi képp ku gis vidéo bi trial nga jéem a fexe ba nguur gi seen bopp ñu gis lii Mr Adama baro jàppaleel réew mi. you see that kid right there of course gis ngeen xale boobu right there yéen a ko gisal seen boppa is very unfortunate ne lii lañ nekk di dunda ci Gambia yéen a gisal seen boppa vidéo boobu noonu du lu ma leen nettali du lu ma leen wax ah, yéen a ko gisal seen boppa macha allah kon this is not a joke. suñ dëkk dañ am yu métti dañ am yu bari yu ñu nekk di dal yoo xam ne dañ ko war a take care of priorities yoo fi flood yi lu moo jur dégg ngeen waa ji mu ne jigéen ñi ak xale yi ñooy gën a sonna ngeen gis xale boobu nu mu doon struggle si gannaaw kon di lu am solo la pour first lady bi mu gën a bàyyi xelam next time as to what to do ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan fii ci Gambian Talents uh, um, TV Pa Ousman Joof nekkal leen ci gannaaw microphone bi ak Eva Sarr ma read some of the comments ak Eva su ko defee ñu continuer be ci kanam a kanam ñu dugal am um, ñi nga xam ne ñooy waa Akira um, waxtaan ak ñoom waxtaanee li nga xam ne moo xew foofu ca RVH uh, Dukula Goodbye mu ne Facebook government Sadikulaay Ñang mu ne di blueprint is just uh, meebal mu ne meebal la rek mu ne we will never see our little Gambia to be high back our uh, our highness. Um, Muneno is 0.65, not 65. We don't need them anymore. They failed us. Mune 0.65%. Uh, yow I wax 0.65 Why li ma laay um, uh, polls la boo xam ne ñu ngi uh, office of the president actually sent me the email I mean, Bohamne, um, 65% of the Gambians, according to the poll, that's what it says. Um, ha ha ha, I was amazed by that 72% rating, is my uh, uh, sitting roommate, uh, Lolawa. Mariam Yai Aisha Mune, so Sar Sadikulai Mune, Gambia needs brain update. If this don't happen, we will be the same level monkey walk, baboon chop, uh, highness hijack our country. Uh, Mune, look at that flood, very dangerous. kon ngeen ngeen liy xew boobu noonu duñ leen euh, def dara lu ñu ngi leen ay bëggee yéen ñu ñuy déglu di ñu seetaan fii ci Gambian Talents um, uh, TV Pa Ousman ak Iba Sarr leen ci gannaaw microphone bi lu tax Gambia du dem show dinañ jël uh, quick break ñu dellu si waat. Pa Ousman nee ma tuuti bala ngaa jël quick break bala moo rooba ah. si mhm. topic bi lañ nekk Fatou Ba. Mhm. Euh, gis nañ tam ne comme ni ko ñoom waxee si audio bi mu ngi daw. ñu di fi forum bi te wax la. Mhm. lii part of UDP waaye li wax dafa nekk loo xam ne is is fact. kenn du ko mun a wéedi mm-hmm. ñooñu ñoo ñu wax te du woon kii rek moo giina paa boobu soo leen ko dégloo mu wax ne daa ko joxul leen karam du di kool sax suñ du leen uyu yaa ko alba jubu jubu euh, yaa ngi xeexal ko boobu waaw waaw waaw waaw loolu kon kooku mu tam ñu génn ñu wax kon loolu dëgg la mm-hmm. ñooñu ñoo xewoon xeex bi man ak yow ñu ngi nekkoon suñ comfort zone a ñu ñoo seetaan ñi eewu ñi gis ne enough is enough ñoom ñoo wàcca suñ jàngul sa pa Ousmane xanaa first lady bi baax de yéen mënoon na moo jël sax mu a ñaar ñii laay yóbbu Amérique jox leen free treatment. mu nekk birthday gift am or birthday bonanza am or whatever mu ne tey suma at la xaaral ma jël ñii gannaaw dégg naa ko si forum bi te àggal dañ ma ko te man suma xel xëy na fàtte woon na leen wala xëy na ñun fàtte woon nañ sax because pa Ousmane nekk ci taranga dañ dee fàtte ñoo ñoo xeexaloon xeex bi pour toog ci taranga xaw a na dégg nga ñi la gën a jege ñooñu ñooñu nga dee fàtte ñi ko xeexaloon. Mm-hmm. billaay ñooñu nga dee fàtte. Mm-hmm. xool ko si a jege ñooñu mm-hmm. na moom fàtte woon nañ waaye indi naat nañ ko waroon na noo xaalis yi wala mu def loo xam ne sax. bi ñuy duñ doon sax loo xam ne dafa stress from the government. diplomatic passport yaa fa ñu jox leen ko jox leen enough ñu seen la ñu dem America o Philippines ne foofu la ñoo ñu faju seen medical bills si check si everything house accommodation yëpp mm-hmm. ñu jox stampal leen ko jox leen ko ko mm-hmm. utal leen ñi la ñoo xam ne ñoo leen a gunge ñu faj leen bañ pare ñu ñib si ñu ñoo toppatoo seen njaboot mm-hmm. jox leen starting income boo xam ne bu buñ ko ñu duñ bàyyiwaat gouvernement bi xel sa dalen na ñaan kon loolu la woon bàyyi xel si seen forum mhm. bi la génne lii taxut ñu nekk ñoo xam ne dañ jóg pour sabotage UDP te loolu nag dafa bari si ñi nga xam ne ñooy UDP Fox ak ñoo xam ne di ko seen ay audio daf dee génn te dañ ko dee déglu yeneen saa yi Pa Ousmane soo ko dégloo yow sa bopp as a citizen da ngeen mer yi fa dee génn mhm. waaw da ngeen mer nañ waxtaan rek te bañ a généralise nañ waxtaan te bañ a indi xeer bañ a indi traite nañ waxtaan te bañ a indi pati mm-hmm. bu fekkee ne gouvernement bi féer na na ñëpp bokk àndandoo ne féer na mm-hmm. bu fekkee ne gouvernement bi def nañ loo xam ne ñëpp jar nañ ñu jox leen crédit dinañ leen jox crédit incha allahu rabi waaye Fatou Ba moom mi ne mooy du tukki bàyyi ko gannaaw te ñu ngee tooñ baro nag ku dem sa Fatou jigéen bi nekk sëy dafa sax dana xat ne baro du tukki bàyyi jabaram ndax du Fatou Ba sama ko de wax ne pour mën a dem ci dëkk yooyu. Iba Iba Iba <laughs> jërëjëf Iba Sarr ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu <laughs> waaye te bara su ko because ban bara am nga bara du ko waloon su ko ni si daf ko war a jox reason wala mu ne ko toogal reason amuloo passeport pour proprement ah. mm. wala amuloo pocket money and everything is there there must be a reason boo xam ne soo ko na toogal moom nga ko jox ne ko toogal waaye bu ko na moo dem foofu noonu oote nañ pour ñu dem waaye nag bu fekkee ne plane bi mu ngi empty war na moo mun a dem waaye su ñoo dem na nekk ay good cause boo xam askan bi rawatina ñi leen put into that those office or ñu leen put in that office gis nañ si seen i bopp ninety percent five percent bi bu leen neexee ñu maye ko loolu seen problème la ñoomee jërëjëf Iba ah, kon dinaa def daral duut du ma def daral du ma play this ah, short commercial suñ dellu si waatee ñu indi leen audio bi nga xam ne vidéo bi nga xam ne génn na barki dem boo njaay ba tax ni ñëpp jóg nit ñi commencé xataraayu di laajte um, uh, affaire health um, system bi kon yéen a deglu di setan lu tax du dem show Iba sarak paus Pa Ousman nekkal leen ci gannaaw microphone ray ba pala ma Palamate du nan dëkk bi du ma Palamate du nan dëkk bi du dem way nakal la mooy demee fekk ene jogun jàmm ku nek bu ko wan sa morom mel jenn xamna su besoon si yenn ni kon du nokki oxygen Pa Ousman yokal ma mic bi nak ma mu na ko du dem lu tax Gambia du dem ni sister Iba Sarr No, that Gambia do them show. Every Sunday night on Gambia Talents Radio. Hosted by Paus Manjuf and Eva Sado. 6 p.m. La TMT. just in case you ain't know. We them, we them, we them. Luther Gambia do them show. Every Sunday night on Gambia Talents Radio. Hosted by Paus Manjuf and Eva Sado. 6 p.m. La TMT. just in case you ain't know. We them, we them, we them, we them para ñaanal para yes yes yes yes yes ah good morning good evening good afternoon fu wa di di dégloo nenti ñeneenti koñi aduna sen favorite programme la lu tax du dem show li Pa Ousmane di def betak tax du dem li Iba Sar di def ba tax du dem yow mi di deglu di setan loy def ba tax du dem ak suñuy njiit ak suñuy kilifa lu ñuy def betak gambe du dem loolu la ñuy waxtaanee duñ def dara lu ñu dellu dem bonjai njaay ci Gambian si eewu nañ to a video mbootaay bi ñuy wax Akira nga xam ne international organisation lañ ñoo dem ci Gambie ci jamono ji ñoom li ñuy def mooy dañuy laaj jullit yi around the world jullit yi nekk ci àdduna bi ñoom lañuy laaj seen asaka seen zakar seen muudi ak yooyu ñu jox leen ko ñoom ñu jël xaalis boobu noonu fudandiir ko jël ko di ci jàppale askan wi nga xam ne dañ soxla ndimbal jamono jii ñu toll nag ñu ngi ñëw ci ci tobaski the next ten days ñooñu ñu ngi Gambia pour liggéey pour jàppale askan wi war a spend foofu ten million dollars ci liñ jot a ci liggéey di def dinañ dugal waa Akira nag ci line bi ci kanam waaye ñoom dañ release a video bu gàtta boo xam ne is less than minute pour joytul ñu pour wax ñu li nga xam ne moo nekk si suñ lopitaan bi ñoom dem nañ pour liggéey si lopitaan boobu dem nañ pour jàppale askan bi ñu réalise ne blood bag muy baag yi nga xam ne fa dee def blood fa lañ dee def deret su nit mayee deret amin baag yooyu ñoo amul si lopitaan bi ñu def vidéo pour ñaax askan bi kon du def dara duñu seetaan vidéo boobu and will be right back don't go anywhere salaamaaleykum guys at the Sharm here, part of the Akira team, I'm in the Banjul Hospital with Sister Awa here. Awa? Yes. Awa. We have an emergency appeal here. I've come here to sort everything out. As you know, we're spending the zakat here in the next 10 days. But something's come apparent, which is very, very urgent. They have no blood bags. I'll give you an example of blood bags are. The bags here that they use for receiving and giving blood is finished. They are very, very desperate need of it, and they have to go to Senegal to get it or other places. Now, the cost of this in pounds is one pound fifty. One pound fifty gives you one. They come in a pack of five. So we have the Akira team, Alhamdulillah, have purchased 1,000 bags today, immediately. They are coming Tuesday. But I ask all you people around the world, brothers and sisters, wherever you are, whichever country you are in, put your Sadaqah Jariyah in now for this bag. One pound twenty, how much sawab you will get between you and Allah, it will be priceless, worth more than anything. Do you want to invest above the ground or do you want to invest below the ground? Which meter do you want? The electric meter you pay for or the sadaqah meter which is free and keep on going like this till the day of Qiyamah. Sister, do you have any messages for the brothers and sisters? Yes, please, please, please. We are appealing to the entire world to help us with blood banks because we are out of that's right now. And please listen and need real meaning of it. We, we are gone out of numbers right now. So please, please, please, please, please, yes. please, please, please donate. Go to the website www.theakirateam.org, T-H-E-A-K-H-I-R-A-H-T-E-M.org. You find details are on there. Donate and put the reference BB. Left back that will be enough inshallah we will then buy some more and distribute this out with our own hands. Jazakallah khair for watching. Please like and share and pass this on to all brothers and sisters everywhere. Thank you. Yena déggandoor loolu yena ko gisandoor yi tamit gars yi nekk foofu ci lopitaan bi ne blood bag lañ soxla gis ngeen sista bi noonu ah, gis ngeen ci lopitaan bi tamit the same hospital of course, you see the sister right there together with um, uh, naar bi ñu ngi wax ne dañ soxla ay blood bags pour askan bi pour jàppale askan bi gis ngeen fridge bi nga xam ne mu ngi nii blood bi fii la dee nekk Iba Sarr werante xuuxaankat no fridge Bangi. this is disappointing this is disappointing this is embarrassing this is discouraging mer gis mer and we should all be ashamed of ourselves in the first place the first thing that came to my mind is what I always say ñun Gambien yi kañ la respect suñ boppa kañ la respect suñuy nit frij baa ngi ñu jàkkaarloo why does it have to take Akira team? Why does it have to take Nari? Why does it have to take Arabi? Why does it have to take international people to always come to intervene, to always come to our rescue before us Gambians will take ourselves or anything serious? It gives, beats my imagination and it gets me mad and angry. These are things that we talk about, that people talk about on a regular basis. Suko Gambian Gambien jógee wax duñ ko mos a falataar su fekkoon ne sista awa mii moom kenn moo taxaw téye baagam bi ñu zoom in CNN ñëw interview ko sax mu wone ko say whatever she says dinañ ko xool nii rek but this video has gone viral this video has um um um um am um, uh, uh, brought up the nerves of everybody ekati saxi boppi nep. Bob Dabo mu thank you very much for the great job keep it up from um YouTube ñu ngi lay gërëm bu baax yéen ñi ñuy YouTube ak on Facebook yep. but it gets me mad because Iba Sarr a few months ago lañ fi indi um, uh, uh, Griff Sougou ñu interview ko man ak yow what did Griff say Griff dafa toog ŋàñña Gambien si ne yëfi Samba Alaar dañuy def ne ñun Gambien si dañuy jàppale beneen askan ñun Gambien si li Griff waxoon mu ngi ni first lady bi just did it Pa Ousmane doomu ma la sax mën ngaa dugal Griff lu ko dafa waxoon nga dugal ko ci lu mu ko gisee mu indi xalaatam lu ko waxoon na la nga indi ko ci mbiri kooku mu bëggoon a na leer tey jënt bi dafay leer de nañ. the first lady just did it. jëfi Samba Alaar la first lady bi just wax li Grief Sougou wax ba tax suñ xol yi jóg it has to take Grief Sougou li wax noonu ñun dañ ko wax ba sonna yéen yi di xew si healthcare system bi ak yeneen ay Gambian journalists ay Gambian people dañ génn ñu def ko ñu wax ko last year si weeri koor bi I remember naka la jànq bi tudda sax benn jànqaar um, fàtte naa naka la she went there to the hospital dem xaar yàlla foofu noonu you want wan foofu you want the wan di cemetery the mortuary and everything that is there di you wan hospital? bi nakala mel people will barely take these things seriously we are talking about the blood back here Momlenyaka. lañ gis nga li nekk di go wrong foofu dafa bari even su fekkee ne blood bi mu ngi am foofu sax just look at this fridge like seriously Eva Sarr if you are looking or people that are looking xool leen si suufi fridge bi fii ngeen seet lii nu mu tilimee we are talking about blood here luy dugg ci biir yaxi ni ñi luy dugg si biir amin am yarami ni ñi secondly these bags ñu ngi ko gis ñëpp a ngi jóg di daw ñëpp a ngi jóg di waxee xol xiir pour jënd ci thousand bags two thousand bags million bags the Gambia government ñoo ñu njëkk a fail in fact the first lady loolu du sax nag su demee bay def ko si biti mu def ko ci biir réew mi moo gën waaye lii ministry of health six hundred million dollars budget la gars yi am si suñ national coffers yi dañ leen xaasal budget one of the biggest budget si national budget bi loolu lañ leen jox this is a big insult pour ñu war a toog di ñàkkal yi ñu war a toog pour ñàkkal yi foo yeese goo dama toog alaska suma benn xarit kool ma ne moo jabaram dañ bugg a génn Gambia pour lii because desperation bi ñu ngi sonna ma ne koy sa jabar mu foog ne docteur la ak lii mën ma wax ji ñu ne dañ bugg ñëw Amérique pour ma jàppale naka la ñoo ñëwee Amérique ma ne leen ma leen a encourage na leen yéen yéen a ngi Gambia yow liggéey fii moom diplomate la jabaram mu ngi liggéey fële na le ñu ne ñu soo xamee naka la dëkk bi depressing depressing soo xamee dëkk bi ni frustrate ne jabar ji ne ma ñun ñu ngi fii jàng nañ pour nekk doctor we are there at the hospital but we don't have the resources this is four years ago mu we don't have the resources pour def anything even suñ buggee liggéey si boppam we are talking about the Royal Victoria Teaching Hospital the only teaching hospital in the Gambia foo xam ne fa lañ war a jàngalee things that have to do with health xale bu nekk di jànga si university bi si school of nursing lépp loo xam ne dafa am ñu jànga ko research fii lañ ko war a defee anything that has to do with the Gambia health care fii lañ ko war a defee di fridge that they use for the blood you see how it is this is disappointing xale yooyu war a jàng what will they learn ñoom lii la ñoo gis foog ne mooy right lii la ñoo gis foog ne mooy right it's very sad and disheartening and disappointing not about that but this is the only referral hospital in the country too nga xam ne ñi nekk Farafenni ñi nekk Bansang ñi nekk Basse ñi nekk Mansakonko ñi nekk Birkama any dëkk bu am health center wala a small clinic ci biir Gambia private or public suñ demee ba football honke. This is the only hospital that we re refer back to. This is the only hospital that we turn back to. This is the only institution that we go back to. That one hospital in the country, Nyomunta and blood back. Shame to us Gambians. Shame to us Gambians. Mange Wahli because I am mad. I know you are mad and you should be mad. It hurts me. It has to take a foreigner to come and bring this out to have everybody else, including the Diaspora Healthcare Initiative, to take up this step. Now, ki def announcement they léegi ñu ngi raise funds the Diaspora Healthcare Initiative which is good to step up Why? why did it have to take a foreigner to identify Lee before ngeen get defco? you've been asking people for money ak yéen ñiy liggéey healthcare system bi yëpp ñi ti am mandate yëpp dooree ko ko Dingurgi, nguur gi ko ci président Adama Barrow wàcce si to minister of health ñoom ñëpp dañ ñu disappoint as Gambians this is a big shame you are empowering the Barrow youth movement I know about it because don't get to the Barrow youth movement ñu wax naa leen li nga fi nga xam ne fa lañ jaar ak No. non ahankay di empower the Barrow youth movement the money that is put in towards building regional offices for the Barrow youth movement wherever it is coming from moto yi nga xam ne moom lañ jël jox ko gars yi the First Lady Foundation just been established now ñu ngi am a CEO barki Dembo Njaay la leen Global Properties jox five hundred thousand dollars ni ko kii waxee Pa Ousmane am waxee it's the truth it's a fact gis nga nañ leen bàyyi caaxaan te ñu liggéey politique bi lañ fi war a bàyyi Politicians are busy trying to consolidate themselves. And Lee is sad because suma yangi Gambia, suma magegra kayangi Gambia, suma inenbo yangi Gambia, suma kharidek amdi Gambia, amdi jama Gambia. My team is in the Gambia. and Gambia is home for me lum bari ba bari lum metti metti take me out of Gambia you can never take Gambia out of me lum bon bon lum metti metti lum ñanga ñanga ñun ñëpp dañoo pare bugg a delluwaat Gambia su méttee bañ mag wala situation bi improve for dañoo bugg a dellu Gambia suñ demee si lopitaan bi la yaakaar ku si dem yàlla tere nga feebar wala sa mbokk feebar nga uh, ñu war a jël blood si fridge bi lañoo génnee blood bi after seeing this Eva li ma leen a jox exemple benn exemple laa leen a jox bi ma demee Banjul dama dem last year ma cross wara a ak suma rakka ma cross jitu ko muy cross ak moto bi di ma ma ko xaar bara mu cross ñew ci terminal bi fofu man ma ci kanam boori kër alaay tabara mané mu jënd afra afra yi ñuy lakani mu jënd afra bi jox indi ko ñu commencé lek afra bi it was so good and so nice mu jeex si sansi ñu wara continuer dem fara feñ mané ko déedéet nañ wa dem ndax géej naa afra yu nexé ni mooy afra forox jaayam waaw I will show that picture right now I will show it just pour create a mental picture rek man link ko ma ne ko afra bi neex na neex goo xam ne we cannot just go like that nañ delluwaat ñu dem jënda moo mu ne ma baax na ñu delluwaat ma génnee xaalis jox ko ne pour pour ñu jënd afra bi pour pour mu lifin pour mu neex mu ne ma baax na fiñ toog noonu di jënd am am am am ah, this afra ma gis place bi ak nim mel ma gis waa ji kayiti tabax yim tekk pour génne fa afra bi ma gis waa ji amin du ma ko tayalee sax ngeen balal ma rek ma siyaal yi kayiti tabax yim tekk di dog afra bi ma gis loxoom yi ni mu ko téyee ak ni ko caxat caxatee this afra I mean um, at the end of the day Eva I could not eat this thing anymore ak lum neex neex lu afra bi neex neex munatuma koo lekkaat afterwards because of nim fa taajoo amin duma def dara lu ma wan len am am uh, uh, these pictures rek nga xamne ne am momla, la jamono joju nonu nga gis koku nonu si terminal bi bara, this guy was selling this thing the first time I ate this man suma rakale mu ma fateli bi ma dem school fara feñe duma am am jenda ya ya sax yenn yi dama dem jenda suma xaf mburu wala full mburu ñew mu ñeexal mama ma fay leen three is or five is wala yenn ma yokasi laxas why when I went and I saw this person and selling this Afra, it was so disappointing. Iva Sarwajangi jangini at bi. as you guys can see ngeen gis ni mu téye Bima yi bi gis kii kayit bi mu afra bi nii nga gis kayiti tabax yi fii nii cement yi la dog nii dis kayit ñu ngi am tuuti cement on it gis ngeen loxoom yi mu ni afra bii man la doon dogal lii maak suma family eventually we could not eat this afra just because I see the afra ngeen gis fii ni tilime tilimee ak ma gis si biir si sière ah, bi mu whatever they call this fi mu teg lii ko gisee I will not eat this afra anymore eventually. I did not eat it. And I spent over a thousand dollars on it. Munuma koleka, but first one bidamako over enjoy. I over enjoyed it. You can see this guy. Lohomi, solid gloves, solid anything. Parker bag, everything. Katie cement, mom la jel mungi am tutti cement. Mu war ma si defan afra. so naaw man su ma waree toog ma gis fridge yi RVTH gis deret ji ni mel ci fridge bi nii everything nga gis lii nii si roni fridge bi ni mel nii honestly ñu war a jël lii ne dañ ma koo defal man I would rather die than have this in my body I would rather die than have this to be put for my family ak leneen iva ma wax ko ma bàyyi la nga ñëw in before ñu dugal waa akira yi dafa am ku ma waxal Banjul mu ne ma moom du donate blood ma ne ko lu tax mu ne ma because dafa am experience jabari magam dafa feebaroon ba bugg a dee ñu ne dañ soxla blood lopitaan bi ne amuñ blood ñu lijjanti fu nekk ñu ne amuñ blood ñoom seen mbokk yi kenn bokkut ak jigéen ji feebar blood group ñu desperate jigéen jaa ngi sonna finally they had a family member koo xam ne mun nga ba Farafenni ñu suñu dëkka ñu oo kooku noonu kooku fay paas jógee Farafenni ñëw ba RVH pour joxe blood even bu kii ñëwee pour joxe blood bi si la gars yi dem whether this fridge la or any other fridge ñu not get génnee blood foofu noonu the blood that they had so this woman was dying they they had the blood in there but they were waiting to get a replacement before ñu solal kii blood bi guess what in the process of ñu ko solal blood bu sedda boobu biñ jëlee blood bu ees bi si family member bi ba pare di ko solal blood bi nekkoon ci fridge bi the woman passed away so ki mu ne moom du dem di donate blood am last week Sunday as we speak this time gaya yaa ngi sole di sul benn waay ji ñoo wax Ansumana koo mu ngi department of information this person passed away why because dafa am accident this is public news the Gambia Daily newspaper ñu ngi ko everything mu ngi doon di Gambia uh, department of information moto Basiru Jawara driver Basiru Jawara bi moko hit and this guy had internal bleeding muy bleed ba sonna ñu yóbbu ko si lapitaan bi amuñ blood buñ ko defal dafa dee last week saturday la lii happen exactly one week ago waa ji ko tàmpoom moo ko ekkati ak ñenn ñi ko xam ñu jël ko waa ji dafa daw dem ñëwaat acted like he didn't know anything dafa ñëw pour jàppale mu jël waa ji eno yóbbu ko lopitaan gars yi di ko ut fekk am na ñu jëloon taagi moto bi ñu ko ut fekk di same kaala police yi mujjee ñëw gis ko because dafa daw génn ak kiram he moved out of his apartment moom waa ji dafa move out of his apartment moom waa ji call family waa ji jox leen xibaar bi ak a few things yoo xam ne def na ko that showed ne he is the one behind this dafa mel ni dañ amee caller on the line caller boobu da nga call pour dugga ci show bi fekkee ne loolu rek ma dugal la ma dugal caller bi nii hello caller hello waaw naka nga def alhamdulillah sa voice baa ngi loaded maa ngi dugal are uh, you calling to participate in the show diga diga diga diga bu ma gisee fruit bi sama bi tooy na waaye comme li may wax rek dama am lu ko boo ma gis nii diga la ñun ñëpp gambien leen mm-hmm. sa call bi mu ngi fluctuate nag sa call bi mu ngi fluctuate soo soo mënee gën a jegeñ sa phone bi yes ah, yaa ngi ma waaw maa ngi laa dégg loud and aha ngeen ne naka sa wax baa ngi sori waa de digale ñu ngi blame ñu ngi blame Gambian government bi wante dama foog ne tam suñ lopitaan bi suñ noos yi suñ doctor yi they not doing good job dañ dee xaw na ka suma xool dafa face because dama am ñaari bad experience mm-hmm. last week and mm-hmm. two months ago mm-hmm. yes dama suma boppa dama dinaa dama dee donate comme sa lopitaan bi waaye man dama decide ne not to do it anymore because make good sense dëgg la nag nit ku nekk mun ngay joxe wante dama am suma benn yaay boo xam ne la dafa lakkax. ndeysaan. anyway I cannot story bi it can help. kola bi teg na xolam fees na. xolam na I wish mu share woon story am na on hold for a minute I wish mu share woon story bi. Um, but man wow! ki ki li xew Banjul kooku dafa réer Eva dafa mujjee dee why because lopitaan bi amuñ jumtuwaay yi pour mun stop bleeding bi pour mun koo defal deret mais bi amuñ woon deret bi because as we can see there are no bags to put the blood in this is sad this is unfortunate so it hurts me nak. ne it has to take a foreigner to say this pour ñun Gambien ci ñu jël li serious pour ñun Gambien ci ñu act on this yena gi deglu tax Gambia dem so Iba sar ma bayla su ko defé ma am ah, jema dugal wa Akira yi nii ma bayla rek nga ci si jërëjëf. Ah, waaw Pa Ousmane man fi jàng bi def fofu la bu gëna ekati wa dama dem mo wax li suma bu gëw wax bëgguma nga dox ma because ñu wax ci sun health professionals dëgg la te fi ñooñu laa bëgg a laal tey nag laal bu dul neex jënd len jëndal leen jëndal leen ñu jënd teg waaye ndax ñu ngi sàmm lu ñii ñi di jënd pour teg ko boobu tam beneen question la gis nga health secteur bi liñ ci war a lijjanti dafa bari rek waaye bala maa dugg si ñoom damaa ñëw si suñu noos bii nga xam ne taxaw na mu nekk ko wasion ne ngeen is it aywa mu mel ni ko amul confidence si boppam. awa awa boobu mu mel ni amul confidence si ni sax man bu ma gisee vidéo bi awa bu si boppam. mooma di ka make ma upset man a awa boobu according to statistics ñu ngi wone ne lives are lost in hospital because of infection control here laa la wax nga xam ne raxas nañ ko tampan nañ ko disinfect nañ ko disinfectant yan fa taplex yan fa yoo xam ne hospital yi par exemple man seen kama yi seen wala gi mun naa fee toog ma lekka daal di la nga xam ne disinfectant eh, disinfectant sax nga xam nañ ko wala ndax am nañ ko xale noonu lu njëkk a sol is not hygienic ba pare head of the hospital si boppam dafa war a dem answer because awa yaramam bi yëpp is full of infection because of nu mu soloo la kenn xamul ndax awa malkas desperation iba iba bu ma reeloo <laughs> bu ma nga seriously laa laa wax am na ibaadu yu bari yoo xam ne dañ give up in life amatuñ góob amatuñ lu ñoo def amatuñ fu ñoo dem bi moo leen ko teg te yàlla yëmal yaama dina mii num soloo nii comme na ko dafa bari catégorie saf ibaadu ban fan la bokka mu ñëw liggéeykaay bi dañ war a am uniforme am koot boo xam ne noonu ngay solo Pa Ousmane fii bari naa ngay dem liggéey waaye duñ soloo kon awa man ne la ne Pa moo doon liggéey si lopitaan bi I work at hospital dama dee liggéey man fu ma gën a like sa hospital bi mooy accident emergency unit man su like bëgguma lu yomba xawma lan la noonu la ma yàlla bindee man fu tens rek nga saf rek bu ma demee si lopitaan bi fu waa bu nekk laa liggéey cardio fu nekk laa liggéey because I was on the agency su ma ñëwee ba yàlla mu dimbale ma fu ma gën a bugga fofu la ma bàyyi sax muy ANI accident and emergency unit maa ngi won si site bo xamne sax taxu ko war a tens noonu waaye si beneen site bu tens bi nga xamne fofu la nekk dañ ma fa dee yobu te dama dee dem. Iba Iba Iba ya ngi newon woon bu la dog waye kola bi dugga ci wat na so nañ ko jël let's hear her story please. nga balal ma rek. yes hello. okay maama na nga def. waaw. mais ñu si sa story bi Mama? Okay. problems. <sighs> I know it's tough, but I have to say it. Uh-huh. ok ñu ngi wax eh, ne comme dama gis ne dañu dee wax ne dañ war a dimbali eh, dañ war a dimbali Gambie dañ war a dimbali health system bi dañ war a def ni tiga la because ñun loolu lañ ñu yaree loolu lañ xam dañ war a dimbali wante dama ne dam suñ doctors yi suñ nurse yi dañ dee négligent suñ patient yi trop wax ko ci kaw dañ ko defal surgery Mm-hmm. waaye ma awar xaw ma wax ko ci kaw pour I don't know listening ko daal noonu ko ku yaramam bi ñu war koo defal soojulu mais bi dafa am birthday waaw that was my auntie three months ago mm-hmm. loolu génn just two weeks ago mm-hmm. suma beneen auntie yaay bu ndaw dafa lakka essence ko lakka ñu yóbbu ko ñu yóbbu ko Banjul lopitaan ah was could you believe narcissiste yi dañoo nekk si seen téléphone yi. Mm-hmm. si social media bi nit yi meer bi di leen oo pour ñu ñëw dimbali ko. Mm-hmm. ak lakaam bi du métti. Mm-hmm. gars ñu ne meer bi dafa diis léegi meer bi dañ a sanga te ñun duñ ko sanga de dañ di oo bi doomam mi oo sista sanga yi lu ñu ñoo sanga jigéen bi pas aussi naka la nit di lakkee. ngeen koo sanga pas aussi meer bi yaramam bi yëpp infect ñu ne bloquant bi nekkul di circulate léegi day wala xaar loxoom bi mm-hmm. di biñ xaree loxoom bi instead ñu xaar loxoom bi ñu ko defuñ mm-hmm. loolu rek paa aus maire bi di sofa dañ am pour yóbbu bi Dakar biñ demee Dakar foos lopitaan biñ dem mënatuñ koo jël because ñu ne mu ngi second stage dañ war a demaat si beneen lopitaan paa aus dañ am pour neexal ñooñu xagga Afrique la ak nit ku nekk ak koo xam neexal bi meer bi dugal si lopitaan bi waaw aussi gis nga toog tey bi ñu gisee meer bi ñoom seen bopp dañ ne mënuñu ko meer bi dafa mujjee gaañu. ndeysaan. waaw aussi diga diga diga diga diga diga Gambia noosi si ba pare lopitaan yi Banjul noosi xale yi ñoo fa nekk ba pare dañ la dañu gida peese nii di di bëri sax daw na yaram ñoom dina julit leen Kola xale yooyu ñoo graduate from the University of the Gambia as doctors te jànge seen practical ci fenn RVH foofu noonu ñu ah. am kiiban doctors yi nga xam ne dégguñ àngale e saka bi ñooñu ñoo leen a jàngal ak ñeneen ñi fa nekka Iva kii nga bàyyi bàyyi nit ñi métti na trop trop trop trop trop suma famille ñu ngi jooy toon noppeeguñ su dee Gambie nii la ñooy def saa yoo demee lopitaan ni Banjul three years na suma own first cousin ko dafa dee mu dem Gambia ah aussi ñu dem pour yóbbu ko si lopitaan bi ko xamoon nañ ne waxtu bi jot na ñu dem fekk clean bi mu ne moom dafa clean pour ñun buñ dugax waaw can you imagine because after five minutes We are in the 21st century for heaven's sake. So, ma waxoon in 1994 la happen wala ngeen ma in in 1990 la or it happened in the 80s I can say something. waaye jamono ji nii yaa ngi dégg kii fu mu génn Iba everybody has power everybody dafa am doole boppam ñëpp dañ am seen doole boppam clean bi dafa clean moom lim gis rek dafa war a jekkali liggéeyam they don't care they don't know people don't get orientated pour ñu xam gis nga emergency su taxawee Iba dangaa teg yëpp comme waa ji ma laa wax nii storeem kii jabari brodaam bi dee nii ngir blood bi kooku di same thing li maama wax nii la kooku wax mu ne moom du donate any blood he's because the blood don't go to the right people yow ku am emergency yéen a ngi am blood si fridge bi génneewu leen blood boobu ngeen defal kooku waaye yéen a ngi lijjanti keneen then why a you telling people to donate blood blood bi nekk foofu noonu what is it for them this is sad and unfortunate ñi am hand in this thing moo bari dooree ko si government bi watches it down to the people that are working in the healthcare system. They take this thing as a joke when people's lives are in their hands. Nyom Sen Bopa in this situation, they don't have the resources. I am mean, a lot of challenges. Explain Nako. ne bi sama mi di am dom. explain Nako. ko last year bi ma fekkee Banjul kooku di am dom. mu am doom depuis four o'clock singon bed, twelve o'clock midnight nothing was done for this lady Mu feel pain ma interrogate nurse I mean, wax ak ne ko I will write something about this su fekkee def na si laa doon realize ne 36 rooms yooyu 36 patients yooyu nekk si room bi moom kenn moo leen nekk di take care ak ñeneen ñi were in more critical conditions dan man suma mbokkam yi wasin gannaaw kooku am na doom an mu ngi ok few cramps ak few pain rek la nekk di am she would rather take care of the other people to kon kooku dafa dese Iba Sarr ma bàyyi la nga continuer dégg nga lu koola bi wax soo si buggee ñambaas wala nga continuer di ca diagnosis si amin li nga doon wax ci noos awal lim sol ak ñoom seen waaw Diouf ñu ngi rafetlu koola bi li mu wax Ousmane Gambie ni ñëpp ñoo am expérience in ma RVTH eh, eh, man ba tey moom laa a yu soo ngeen jégal waaye ma ñëw noos awa foofu laa ko doore bala maa jom di ci yeneen pour nit ñi rek ñu mën a dégg nos awalum sow Pa Ousmane is full of infection si kaw ba si suuf nag it's not presentable at all as a nurse xoolal bu colleague kooku lu kooku sax du nurse sax waaye xoolal lu mu tegoo sax for God's sake xanaa suñ health minister bi Is not a medical professional or what I want to ask that question xëy na answer is he or she a medical professional or what houseman ñii war nañoo dem through all these checks yow da nga war si frig bi awa rek dañ ko war a screen naka la a solo pour ñëw liggéey waxatuma la ñu dem si frig bi awa ngoog de awa dañ ko war a screen from head to toe lu tax may la awa yaramam bi is full of infection am na feebar bu ñoo wax sidif non si xam nañ ko healthcare assistant yi nekk fi xam nañ ko bacterial la boo xam ne daf dee cause uh, infection in your bowels boo xamante ni moo dee tax nit ñi am biir bu daw ñu bëri la làmboo yooyu soo ko amee sax laa la wax pax Ousmane dafa am special nurse yoo xam ne ñoom ñoo war a dugg ci ruum boobu ñoom ñoo ko war a génna te suñ faa dugal suñ dafa am nañ war a soloo dañ war a prépare seen booba because daf dee gaaw pour mu war a mun a transfer is very easy pour mu war a mun a transfer man liggéey naa fa pax Ousmane leen dee teg foog naa ne yoo xam na ne dama dee liggéey lopitaan because dañ daan communicate night time a lot yooyu naa la netaal bi ba may la soo paree dilit ko because alalu ma pour ma netaalu fa maa ngi woon si room doon def maa def ma yónnee la ko ne ma maa ngi nii di liggéey ma snap ko ko ko mm-hmm. ma jël fa photo I was on my break it was a break room ma netaala ne la xoola just pour nga am the sense and idea because foog naa dañ doon wax sa communiqué ma def suma vidéo bi on soo paree may la ne yore naa la of it deletal ma ko awa si bo side room bi pa Ousmane dafa am noo de solo pour dugga fa te side room lañ leen dee teg te suñ paree room boobu dañ ko war a disinfect daf dañ ko dee teg for a whole one week kenn du fa dugga kenn du fa génna because dañ ko setal clean ko diarrhea for God sake moom la ñoo wax Afrique ñaata nit ñoo fa am diarrhea yow bala maa ñëw sax si yàppa booy lekk nii ngay wax ni sa laalaw soo noos awa si ñim employé comme nu maama li ngeer saar wax eighteen or nineteen people ñoo xamante ne seen budget bi seen yëpp health minister bi is not doing his or her job right dafa war a answer to the books and dafa war a dem answer to parliament mu war koo lan nekka di def fake yi yëpp netaali dafa war a dem answer what is his job ndax ñi nga xam ne ñu ngi audit ñu ngi def their things right te Ousmane there are so many wrong things in that RVTH yéen da ngeen experience man suma story du ma ko explain nag ba keroog bi nga xam ne damaa wax Alice, bi ma ñii jox fu ma koo dugal ak naka lañ koo def foofu laa ko expliqué lana ma inspire pour ma war a jug bàyyi suma kër comme ni ko Pa Ousmane Thiam waxee drive dama dem diimar seen naa la recette bi pour jënd essence pour dem my my card dañ bounce back xaalis nekk fa woon ndekete nga suma direct débit bi dañ ko génnee ma am lu ma naxari am disappointment toog borom est ma dem pour fay mu déclaré it was a Sunday I couldn't read my back I I couldn't do anything it was on a Sunday I was going on a journey boo xam ne it's not for me I could have stayed home comfortably maa ngi toog mu doon taw mu so wis seetaan suma enjoy yee my yàppa maa ngi so suma feebaree dañ I treat like a queen waaye dama jóg joke. We must say we have to it needs because xam I am being inspired by American. if he can do it as a non-Gambian I can do it it doesn't matter how it takes me I'm gonna do it amee kan moo ma inspire ba nga xam ne ba pare boobu de ma dee mentor sénégalais boobu dee jàpp ci man ne ma Eva buy bàyyi ba doon bàyyi kan moo see jàpp waxam bi daf dee ring daf dee écho uh, it's a, it's like an injection to me su ma jógee rek ak woyu su nduur boobu mu dee wóor dafa am yeneen yoo xam ne dañ ma dee inject pour force ma pour ma def something ak ñi bokk nañ man koo gërëm bu baax a baax sénégalais boobu nga xam ne dama demoon laaj ko xalaatam ne ko dama bëgg a bàyyi jëloolu ma dara aw ma si dara mu ne ma ne nekkul njëriñ bi tey nga koo gis waaye xëy na ëllëg yaa ngi koo liggéeyal sa réew te xamuloo ko maa ngi koo gërëm ko sant dafa muy Amérique mu ne bu fekkee benn nit moo lay déglu sax bul xool fi si gëmal ne yaa ngi yëf yokkute doo xam ne yow yëgoo ko I was gonna regret dama doon bàyyi at all because there is no point Gambien c'est pas Ousmane number one ñun we are our own problem duñ dee seetaan leen dee déglu dundee share li leen amal njëriñ dundee share loo xamante ne gis nga vidéo Mama Linguère sax ñu bëri naa ko expliqué because they couldn't stand mama's face or mama's voice bi suma yaay mu fa suma papa mu fa sama boppa mu eva soo fa amutee ñëpp dee nañ dee njëriñ sabar nag buñ ko tegee tanta ko ñëpp ñooy dugg si seetaan bi bi di kakakaka di ree ñoom ñu dee njëriñ duñ ko dee toppatoo wala xuloo ya xeex jowante saagante xasee. loolu ñi keneen nekk feneen ne di live di wane wax yoo xam ne mënuloo see jàngee mënuloo see njëriñ comme noonu ko dee waxee ñu daw di la seetaan di la fëlo waaye loo xam ne yaa ngi ko wax pour njëriñ leen pour mu jàngal leen. Mm-hmm. pour ñu bàyyi sa xel éduquer seen bopp éduquer seen people yu nekk xoo dañ leen duñ dee déglu sax wala duñ ko seetaan. lu ma leen dee gën a bañ nag mooy kii nu soofee Pa Ousmane ak Iva Sarr dañ jotee na trop waaye eh, lu tax Gambie yoru dem ñeneen ñaa ngee wax du ñu rek ñeneen ñaa ngee wax loo xam ne mu ngi leen njëriñ in a positive way moo tax nee la man vidéo su ma ko seetaanee two seconds dafa ne pour jël suma time oo ne du pour jël suma time ma toog ma déglu ko man vidéo bu ma seetaan daf maa njëriñ dina am lu ma si jàngee loo xam ne dina pare pour dina ma jàngal man vidéo bu ma seetaan damaa try pour learn something out of that video waaye du ma seetaan vidéo boo xam ne daf maa gën a waste my time I don't have time itself so du ma seetaan xam ne dafa drain my time this is so pause ba ñu ñëwaat si our, rek herself nu mu dressé rek it's not right If I do like yes they could respect al muslim la that's the belief that's her belief boo dafa am lu mu war a solo man dama daan teg musóor yi nga dee gis kaaf yi ma dee dem suma boppa bi di ko am na benn time net laa duggee si "Kai, bi Pa Ousmane I was warned You know, ma su ma ko indiwaatee dañ maa send home by the hospital because it's not decent xam nga Iva Iva Iva Iva ne ñu ne religion. waaw respectal nañ ma ko su ma ñëwee ak mosoo but they need it pour mu match ak uniform it needs to be presentable it needs to comply with the whole set of the uniform but not just net yi laa la wax net yi nga xam ne dañ ko dee jiital nii mbaali net yi si mees yi day ñëw ni wigi xam nga de gis nga sabu jabar bi bu baax ndi góor yéene doon dee xool bu baax li dee àndaa suñ mees yi <laughs> nit ñooñu noonu laa la wax moom la jël rek tey rek heure suba bugg a rek xaw ma si lu ma nekkoon ma jël rek sol ko waaye dootuma ko doole. waaw ah, loolu laa la de lii la ne la. la wax crisis needs to be followed par Ousmane te nekku ne manager bi ñëw na mu waxaa man in nice way ne ma next time mosuma ko def moo tax mu maa gi da lii wee next time suma ma ko defee straight away am gonna bi you know damaa dem discipline. Then must send to a discipline. They must send a disciplinary letter. Eva, Eva, Eva. I just want to understand this. If our limb sol, for example, diagnosing it is important, Ah, bi mu ko def xamut ko ba awal lim def noonu ibaadoom bi musóor gi ni mu wàccee si bi fii am na yenn place yi soo faa liggéey jaaru baaraam doo ko sol jaaru yu gudda doo ko sol sa kawar gi dafa am na moo war a mel because soo amee kawar gu gudda koofu loo ko am na noo sëggee mu dugg ci dara wala yaa ngi tiim nit di ko atem as health care professional loolu ñoo dugg ci moom su sëggee right now for example di nga gis ibaadoom bi musóoram gi kaala gi li nekk ci dinaam bi noonu dafa rot ci kaw patient bi dafa nekk di ekkati loxoom mhm. ngi téye dara blood bi oo war mu comme ko la def infection bi nga laalaat kaala yeeg yooyu soo di sa on mu ngi ko infect pa Ousmane di blood moom si boppam is not good la daa ma doon a defe ne li nga wax noonu ci moom ak nim solo and like these are little things yoo xam ne dañ ko war a bàyyi xel but who is there to enforce these things laa bëgg journalist itam def journalist indi Gambia tamit should be blamed yi ngeen waroon lijjanti duñ ko dee lijjanti nañ dem laajte ñii ministre bi si boppam ban ban certificate la am is he a medic a medical professional. Eva Eva li ma la wax mooy xam nga a lot of these places. access to information is the hardest thing you can get the minister should be accountable by Usman Purgena. He's the minister of health, for God's sake. Right. Right now, right now, well, right now, is he a medical, right, is he a medical professional? Right now, is he just then that, that nepotism into that office? Right now, right now, because Mumsi Popan never failed Gambiancy. Dr. Aisha Tuture, Dr. Aisha Tuture, Dr. Aisha Docteur Aïssatou Touré is the minister right now. noonu nañ ko doore sax si awa bala ñoo egg si kaw sax pas Ousmane lopitaan bi rek si biir comme ni ñoo wane non si di seetaan film is wrong yu bëri moo fa nekk yoo xam ne people are dying comme ni ko Mama Linguère Sarr wax unnecessarily ba pare man loolu laa delloo te moo taxoon benn taam laaj naa leen ko fii si show bi maa leen xanaa yàlla bu nekk Afrique ak yàlla bu nekk fii lu benn. waaw laajte nga loolu de moom. Mhm. waaw. because ñoom ñu ngi dee unnecessarily ndax yàlla bu nekk fii nii Pape Ousmane xanaa ñun ak Afrique xanaa kon nag Afrique dañ am seen yàlla ñun ñu am suñu yàlla fii West bi dañ am yàlla Africa am seen yàlla. Mm-hmm. Where God is one loolu lañ belief, no lañ xam no lañ ñu teach. waaye man su ma léegi li ma we have so many gods because Africa dañ am seen God yi booba West bi am seen God yi booba. Mm-hmm. because ñii fii don't believe yàlla baax na te ñun ñu jógee Afrique ñun ñëw ñu we are on Africa but we cannot practice this here. luñ mun luñ ñu practice dëkk jàmm loolu nag tamit bëgg ko dafa simple laajte nga ko. waaw ma tontu la sa correction bi is because there are people to uh, to enforce those laws and they don't play with it and knowing that it's about life xam nga that is the orientation bari na ñuy liggéey Gambia si security si health ak yenn sectors yi. they don't know their job because uh, they, they, they, because amuñ the orientation security dëkk kenn warul koo caaxaanee am na certain things yow yaa ngi nekk security am na security elab boo xam ne su amee yenn sàggante yoo xam ne su app ne it affects thousands or millions of lives so yow waruloo caaxaanee loolu through taking bribes wala through sàggante wala through nepotism wala through da nga xam nit am na loo xam ne su ne ñi moo affect dafa bari the same thing with these things fridge bii nii di immediate di gars yi dañu a dem check let them go and check ndax bëgg na ñoom mu jege leen waxuma sax mu laal waaw ndax mu jege leen deret bi nii pour mu war a nekk noonu to be honest nañ def loolu noonu jëlale si nañ def biir rek ko na feebaree end of this mu laal ko si yaram pour gàttalal la ko Iba de amuñ jumtuwaay. lopitaan dangaa dem loolu man doxuma ko lu kii wax dëgg la mooy dëgg bi Banjul du jee ak jumtuwaay loolu ay dis man du ma ko nangu. Iba Iba Iba Iba Iba rek man nga mayoon ma wax benn góor Eastbourne Hospital la di liggéey surgeon la dee dimbale di leen defaral seen bagage he's not a surgeon daf leen dee dimbale di leen assist loolu mooy jobam I don't know surgeon assist lañ ko dee oora xaw ma naxal exactly lan la fa dee def wante surgery bi team bi foofu la bokka By this is Isborn, send me I was living in Isborn and I was working in Isborn hospital. More at Jabaram, Jabaram's sister like, in that hospital. Me, Pa every month, Jekerbi, then they able supply in the Gambia beds or whatever your the hospital be, then they replace any new one, same come with them that could you I'm a connection be, I'm a child, that I've Gambia. Mm -hmm. We are tired of these equipments. Let them train our professional people to become prof to, to, to act in a professional way. suñu ñoo si comme ni ñu nekk ci biti ñoom ñoo dee dimbale te loolu GDHI nag am gën a dama leen a dama leen dama leen a criticise GDHI nekk soo ne ngeen nekk partnership bi di hospital ñeen wax ku la abal bët fu ko neex la moo xoolee ñun ñoo leen abal bët bi ko su ñàkk amee ñun ñoo leen dee dimbale ñun ñu nekk ci west bi lañ wax ñu defal loo xam ne dinañ toog ak ministre bi GDHI am ay représentative kuy dem toog wax ministre bi areas yoo xam ne moom gisu ko wala liggéeyam xamu ko GDH, I, according to Lugaiwana, they have so many professionals they are claiming in within the within within within within GDHI. I'm in for nurses, I'm in for doctors, I'm in for HCA. Let them go home and volunteer with a voluntary job. Eva. Eva. That was my memory. Many of you have a voluntary job since they on their holidays. We train these people, one lengthy senior sinuwe ninget go use. Let them be in partnership with the hospital. Let them be watchdog. Iva li ma laa wax mooy ñoom mooy liggéey and they are professional among themselves ñu dem bagage yi ñu ubbi ko ñu xam fa la ñoo dem ñu ñëw woon askan bi binda a report woon askan bi nekk ko li ngeen ñu jox because people are people are ñoo nit ñi ñooy donné people Gambians are ñu nekk si diaspora bi ñooy donné Pa Ousmane mm-hmm. nañ dem ñu woon we want to see now because it's all about technology we are in the era of technology ñu dem ñu woon ñu train suñ people yi noonu ñu doxee nii ñu am ñoo xam ne team every year ñu rotate ko yow ngaa dem holiday right gerte demal lii su paree sax suñoo sponsor on ñu jël si loo xam ne ñu ko dajale ñu dem three two weeks nga demal extend ko defal three weeks one week bi jëlal sa time volontaire nga dem si hospital it's our country for God's sake lu Sénégalais boobu wax dëggal hundred percent kenn du wàcce si suuf defaral ñu ko ñu ñoo ko defaral suñu bopp Pa Ousmane nekk ci biti ñëpp suñu feebaree we have am awa dafa wax story if I tell you my story my dad was working in that hospital I have every access man da lopitaan bi dama amoon access fu nekk pour dugg because my dad was working in there when I was young bu ma doon dem school so man comme li ma la xaalis lopitaan lañ ma ngeen tey RVT xëj boobu noonu ñi ma xam ñi xam suma baay xam ne li maa wax du fen lopitaan <laughs> boobu noonu fu ñoo waxee dëgg ak man hmm. lopitaan bi par Ousmane dama fa xam ci biir activité xëj na léegi la am na yoo xam ne Pa Ousmane it's high time GDHI ñoom ñuy claim lii. Mm-hmm. ñu door di dem sol seen bu baax waaye dañu mën a toog fii di encaissé xaalis naan bagage bagage ñu dañ sonna si bagage. Mm-hmm. nañ dem train ñii su nécessaire yi ñi ci bëri si ñoom dañ am kayit ñu link with the government ñu jox ñii kayit. Mm-hmm. ñu ñëw ñu garanti leen ñu yóbbu su dee UK la. nañ yóbbu seen passeport bi to UK border force. ñu def seen train yi ne pare by force ba ñoo ñibbi. loolu moo leen fi am na loo xam ne suñ ko play is gonna work Pa Ousmane. Mm-hmm. gis nga yoon boo gis nag. Mm-hmm. ma Martin Luther King bu ñu doon xeexal ak ñoom Nelson Mandela maa ngi gis école mu ngi génnee very nice track di wax ne mm-hmm. we miss you Mandela. tey freedom bu ñoo enjoy Mandela moo ko xeex nekkatoon ci moom when I watch this movie I cried. but tey freedom bu maa enjoy nii ni maa mun a nekkal liggéey liggéeyukaay di self defend myself. Martin Luther King xeex na ko Mandela xeex na ko te Mandela xeex bu méttee méttee méttee la ko xeex dama try pour download that video pour nit ñi mun koo seetaan mun say jànge mu maaw it's not allowed it's not accepted mhm. su ma jikee mu maa very careful of copyright yooyu noonu mhm. issue yi mhm. waaye su allow na ma pour YouTube ma dugal ko ma share ko on Facebook aw share it and it's high time suñu xale ñu doo di doon jànga it's not easy change is not never easy harsh jërëjëf jërëjëf Iba ma dugal la ak kii rey balaa moo gën a guddi Gambia ñu def ko people bi dañ sonal nag si maye bi donate leen ñu dimbale leen ñu ñu yóbbu ñu ne any equipments Gambians are well equipped nurse ñu ngi koo jël di ko sàcca docteur yi ñu ngi koo si private clinics si private hospital suñ port si foofu lañ dee excès ñu ñëw private hospital yi ñëw ñu ne jaay leen ñu ko they are all corrupt nañ leen génne si système bi GDHI i war a maa taxaw according to li ñoo claim am nañ nurses am nañ doctors am nañ all professional people let them render their time let them render their holiday time ñu dem rescue the people people are dying unnecessarily and yàlla bu nekk fii xanaa nekk foofu man loolu laay lettee jërëjëf Iba ma kool waa Akira yi balaa moo gën a guddi Iba. Iba dama bëgg a dugal waa Akira yi balaa moo gën a guddi mooy naar yooyu su ko defee ñu waxtaan ak ñoom. because dama mer nag dama lay waxee rek because dama mer trop GDHI people are tired. Mm-hmm. of giving people stuff nga ne ni container how long ak how many years la nga leen jël pour container bi wara a dem. How many, and how many years you have energy? maa ngi daayal gars yi maa ngi daayal si yéen mi nga xam ne yéen a ngi America yéen mi Sweden you name it China yéen a live a luxury life. Iba maa ngi daayal yi just to let you know. pour in case su dugg a seede ndax mu ngi guddi Gambie Pa Ousmane mu mooy sa dëkk ñu ne nga ñu ngi wane li insult to you. hello hello hello. Hello. Hello. dafa mel ni waaw kool bi dafa dog rek Iba mhm, nga continuer waat rek su ko defee ñu. riir soo amee rek nga dugal ma dinaa toppal. Mhm, mhm. waaye ñu ngi leen a béggee di leen dalal yéen ñi ñuy déglu di ñu toppa ci Gambian Talents lu tax Gambia du dem show ah, ma read some of the comments rek Eva data coming through su ko defee ñu lii mm-hmm. Louisa Louisa Edwards mu ne our own um, days as nos. no earrings no rings no watch you must put on a white cap white apron a Clark sandal either white or brown from HR Carol and Co those days you have to abide by the rules and law. We wash uh, patient bedside lockers every Monday. I forgot you should also have short and clean fingernails. Ramatlai Job Mune, lack of orientation, as Pa said. Here, um, a new graduate nurse get three months orientation before working on their own. So I don't blame the nurses much. It's just unfortunate mu do du blame nurses much it's just unfortunate Ousmane um, uh, Ayub mu ne Pa Usman how can Gambian problem be solved when the <laughs> whole system based on corruption what we are seeing now in the health system is completely shameful I will not been I, uh, I will not been surprised even Those blood bags were stolen by the doctors or the nurses for their own use to do their own am um, uh, business uh, am na ku ma wax ne dangaa gis nit ku ñëw yow yaa ngi wax affaire infection IVA ñu ne dangaa gis nit ku ñëw wasin si si lopitaan bi li ma la doon wax lu ma expérience la suma ma mbokk mi dafa am doom nurse boobu bi ma ko engage ne ko pour mu atteindre suma mbokk mi mu dem ba war koo engage war koo defal drips war koo defal am um, uh, lifin IV lii tape tape laa la wax de pour tape ko suñ bonnee loxoom bi vein sam pour IV bi daw fa pour ñu tape ko noonu they don't even have that tape at the hospital this was at midnight and I was asked pour ma dem jëndi ko ma génn dem Banjul pharmacie fekk ñu tëj dem ci pharmacie yi nekk boor boobu yëpp fekk mu tëj téeb laa la wax de pour téeb loolu kenn si patient si toog foofu ci jigéen ñi moo amee woon téebam because moom ci defal ko ay bi lañ dëkka kooku moo ñu may tuuti téeb Eva pour ñu téeb loxo kooku bi pour ñu téeb ko so pour ne jumtuwaay yi available luñ ci lapitaan bi yes available luñ am ku ma wax ne ma noos si dañoo ñëw nit ñoo wasin ñu jël ko toppatoo ko ba pare kooku jëndal boppam saabu jëndal boppam détool ak ñoom seen lifin yi yëpp ñu raxas si xale yi ba pare ndesit bi ñoom ñu jël yóbbu seen kër pour suñ demee yuus imaginal xale bu wasin ñu sangee ko saabu yi ñu sangee ak everything they take those things home to go infect their own families so lii xew ci réew mi dafa bari Sadio Xalaay mu ne in my seeing things no proper training not happening no policy being followed they do what they like because they know nothing will happen dañ xam ne dara du ci génna mari maxone drama issues no beneficial staff those are the staff Gambians the staff Gambians respond to affaire drama rek ayub mu ne pa Ousmane how can Gambia bi lolu riidoon naa ko Sadikulaay mu ne if their bosses saw them no professionalism and they don't care well the junior will also follow their footstep loolu la ñoo def Hatab Sonko mu ne the or doctors must be charged for manslaughtering. Absolutely. For manslaughtering. Yeah, Adam Lee Mune, sorry, sister. It's really sad. I went um, to, through your experience with my younger brother, Adam Afai, when he was supposed to be donated blood. He ended losing his life. So, a very blood donor. And every single time, they said, I'm not, what are you? But you have to try to gather blood, try to get blood am na story sax of the wrong blood group being put for somebody to yi xew ci dëkk bi moo bari te ñi si am cër dañ bari eva these are things that are not a joke that needs to be taken care of and the government should be able to prioritize according to the blueprint, according to the um, document that they uh, are circulating, my national blueprint, they are willing and ready to actually um, take care of the government, um, um, the, the, the, the living um, uh, health is one of the priority areas areas yi nga dañ ko bëgg prioritize health is one of them Why, with li gis honestly is not encouraging at all what we are seeing is disappointing instead what we are seeing is discouraging what we are seeing especially the fact that we are having foreigners coming over to take care of these things yaa wax health minister bi Safilo Ceesay moo fa nekkoon léegi Aissatou Touré lañ fa def it is sad it is unfortunate and this is where we are as a nation. Our people are dying on a daily basis. Basic necessities, basic things. reference to Mama Linguère. What she's saying is true. Basic necessities In the West, we all know the type of I mean, um, amenities we have, the type of things we have access to, the type of resources, healthcare resources we have access to. at Gambia ni People have to go buy all of these basic things for themselves. dañ am pour jëndal ko seen boppa like I am telling you bandit danga koo jëndal the smallest thing yaa am pour jëndal ko sa boppa foofu noonu. ah Ousmane ndax dee ñëw si lopitaan bi dañ ko dee sàcca. Iva. but I am telling you mun naa ñëw si lopitaan bi. waaye dañ ko dee sàcca moom laa la wax foofu la audit bi ñëwee. comme ni ñu la wax yëfi sàcca yëfi sàcca yëfi sàcca boobu. comme li ma dee wax la Gambien si dañ war a génnee di boobu loolu la health minister bi health minister bi loolu la fi waxoon ba docteur si demoon strike. You heard about the sit-down strike that the doctors were doing. It is because the health minister, former health minister Safilo Cisse, moo waxoon ne I mean in a gathering moom moo waxoon ne most of garab yi ñëw si lopitaan bi jumtuwaay yi docteurs yi ko si gis mu ngi amee pharmacie ni boppam. they have their own pharmacy. When she said that moo taxoon gaa yi dem moo tax gaa on strike moo taxoon gaa yi demoon on the sit-down strike. kon nag Ousmane tey demal si noos yi ñu def research statistique ñu dem noos yi nekk Gambie di liggéey si xel secteur bi yëpp koo dem këram dañ fa fekk si sol lopitaan bi euh, pour sol lopitaan bagage comme li nga saabu lopitaan dañ fa fekk mbaaje lopitaan lekki lopitaan yi dañ ko fa fekk. Mhm. which is very sad ku nekk ku nekk fi nga liggéey ku nekk maanaam ku nekk fi nga liggéey even département boobu noonu dama wàcce liggéey suma post yi dama ko fa dee dugal si so yi nga wax ni because su ma ko defee suma post bi si kaw su dee sege comme li maa wax ne noos bi rek su ma daf dee rot te mun na moo rot si kaw comme li maa wax la ñu def la fi nga xam ne barrière room la yaa ngi am li nga xam ne mooy sidif man laa toppatoo man laa cey dina defar si so boobu ma sëgga pour toppatoo la war a róol la def la mu root si loolu noonu te waruma ko laal because xam naa ne sidif nga am ma jël si soy di ko dee def suma poos bi ak téeb booy wax nii ak ah, antiseptic wipes yii nii dama ko dee amee in case ma dugga di def something nga xam ne du ma génnaat mm. da nga dee prépare ba nga xam ne doo génnaat soo duggee di def sa service man su ma su ma ñëwee kër si so bu ma fi fàtte dama ko mu mm-hmm. si seen mu si seen suma contract employment letter bi mm-hmm. mooy li ma laa wax nag ne la yow yow as a person yow mun ngaa lifin loolu noonu président Gambie bi am nañu ko dee amee waaye man mënumaa jël lu suma bos loolu alalu jàmbur dee nelaw dama dee loolu waaw déedéet déedéet dañoo wax yi ñoo jëlee waaw jikko yi moom la ñoo bëgg a indi bitim ko pour yokk ko ak su liggéey fii sax am na fi ko fa jël pa Ousmane damaa am ci suma paquet bi yëpp wala su ma fa fàttee dara su ñëwee dama koo delloo liggéey naa place seen radio bi because kenn ku mën a toppa toppa dafa am six heures ma ma fàtte dis walkie talkie dëkk batterie bi dafa deeyoon maa doon def suma hand over bi in the morning ma fàtte ko dama ñëw te dama off te du ma fa delluwaat because amatuma fa suma lifin jeex na fa dëkk ba dafa delluwaat dama ñëw ma drive ko bi xaafat awa ma ñëw ma sangu ba set ma delluwaat ma jikko ñu am si suñ kër yi ma delloo seen rajo bi because te duñ ko di te maa ngi bañ bu faa liggéey na sàccale ngay def te sama os dañ dee sàcc ma ñëw ma nelaw ko sax ma gis ko ko la wax la jikko yi ñoo jëfandikoo si suñ kër yi niñ mel si suñ kër yi suñ diggante jaay gaaw yooyu moom la ñoo indi suñ liggéeykaay luñ maa njëkk a wax ne boo ko détecté boo la boo ko discover lu tax delloo la ko wala nga nga nga woon le ne mu ngi fi nga wax a jël osotaan because aw ma excuse département bu nekk dama ko delloo soo yii lañu war wax koola bi ñëwoon dugga fii wax léegi déggal ñun ñu ne jurit dañ tax Ousmane am na yéena yoo xam ne kenn waroon ñu koo wax ay nit lañ département ñu am xel di dox départ bi lu ko fa yaa ne loolu la la wax. Mm-hmm. loo xamul bàyyi ko loolu moomut ba ko fa. Mm-hmm. loo gisul gumba ayli nguur la waaye Gambia fan lañ dee gën a mën a sàccee su nekkee ayli nguur. daaw dañoo wax ne lu kenn lu ko yow yaa ngi wax ne lopitaan la ñoo wax tey de. xam nga ñaata si ambulance bi rey fa si ñoom ñoo dee wiri essence di ko jaay xam nga ne yooyu. non li ma la doon li ma la doon a wax Eva mooy. each department in the health sector or in any office in Gambia ku nekk département bi ngaa liggéey li la fa affect foofu la su dee driver bi moom essence la mun a sàccee fa la mun a jaayee li fi ne amee moo caatam laa jël su fekkee ne cleaner bi moom si cleaning supplies yi la mun a jël bleach beeg ñoom seen toilet roll seeg ñoom seen loolu la moo jël su fekkee ne nurse bi moom it péngu yéeg ñoom seen ak yooyu la mun a jël loolu la moo jël docteur bi lu mun a jël loolu la moo jël ku nekk si département boo nekka li fa nekka loolu ngaa jël yeneen ñu traite sax yeneen ñu traite noos bi mun naa amee moto wala docteur bi mu soxla essence amin ki nekk ci driver bi dem indil ko essence jox ko moom it mu jël ci yenn si jumtuwaay jox ko gars yi trading this is all possible gis nga suñ dëkk li fa nekk di góorong dafa bari li nekk di góorong foofu dafa bari iba waxtu bi jàmbu nañu wax di ga neex yàlla maa ngi doon try waaye ak kiira yi tamit jotatuma leen but it's unfortunate that it has to take foreigners to come and say these things pour ñun ñu war a jóg ku nekk takk sa ndigga ne nañ leen liggéenti nañ leen def fundraising nañ leen jàppale am na ñuy make some comments nag it may sound sad because at the end of the day ñan ñooy nekk victimes si mooy ñi feebar ñan ñooy nekk victimes si mooy ñi tëdd si lopitaan bi ñooñu ñooy get affected at the end of the day waaye guess what government bi ñu ngi continuer di def li ñoo def they may not care what we say li leen faa gën a teg ñoom lépp lu ñoo participate nu ñoo mun a politicize la ñaareel gis ngeen am euh, manjaay kootu domside biñ leen wan di other day xam nga suñ newaan domside domside ñëpp baakote lañ xam baakote domside baakote ma la ñoo wax xam nga ne domside boobu noonu mu ngi foofu for the longest it's been there for the longest and people don't know it people don't talk about it niñ war a correct Gambia moo bari dooree ko si grassroot level bi dooree ko si kër yi def orientation def training Eva maa ngi dugal benn video Sénégal bu yàggut civic education you can bear me witness I've been saying for ages ne moom lañ war a am loo xam ne dafa fanka xam nga maama dugga si na fii nii mu ne am tantaam dafa lakka dooree ko si kër yi naka la ñoo fayee safara Sénégal seen fire service bi lañ jël ñu dem ci biir community bi di train community bi di wan jigéen ñi nga xam ne ñoo responsible I play that video right now benn two minute video la di wan jigéen ñi nga xam ne ñoo responsible ñooy nekk ci safara yi ñooy nekk ci amin cin yi ñooy nekk ci lii bi pour ñu wan ñooñu naka lañ war a def ba mun a fay safara su fekkee ne safara am na ci seen kër yi su fekkee ne safara am na si seen kër yi naka lañu war a mun a def ba fay safara yooyu noonu loolu la fire service bi doon train am jigéen ñi Iba at the end of the day guess what this is something loo xam ne Gambia you will not imagine xam nga loolu su fekkee ne def nañ ko loolu dafa prevent safara from happening in the society loolu dafa prevent I mean nit ñi war a dem be egg si lopitaan yi and stuff I play the video right now ngeen gis ko su ko defee nit yi understand xam some of these things ñu xam suñ government bi xam yi nga xam ne moo war a nekk priority pour ñu def ko I play this video right ngeen seetaan ko benn two minutes fay na na gis nga dafa nekk di éduquer jigéen ñi mu ne leen su ñoo tooga ci waañ yi nañ jël morso boo xam ne cotine la ñu bàyyi ko foofu ak ndox di safara tàkkee jigéen jaa ngee def mu ngee togga safara bi di tàkka mu ngi ko train mu ne ko the first thing you do gis ngeen community bi jigéen ñi góor ñi ñoo toog this is their fire department the first thing they do mu ne ko demal nga fay gaz bi so boromam fay na gaz bi jël na morso cotton bi right now mu ngi koo dugal ci toujours point bi nan la jëmee na le au gis nga li mu train jigéen ñi mu ngi leen a wan sooy fay lakka naka nga koo fayee fu safara bi di dem towards you don't go towards that direction to turn it off ba pare mu koo wan naka laa tegee morso bi si kanamam gi tamit pour to make sure safara bi bu mu ko laal si kanamam that's what you can see bi lay jël ñëw na fay lakk na lakka bi nga foog ne fofu la em set ko li mo def ak ñaan parce ko lu def ba ak matière bi ko day lu sa so gis ngeen di leen a wan how it goes on and off how the fire goes on and off pour avoid lakka-lakka yi gis nga prevention is better than cure lii laa leen dee wax bi Faraba xewee bi Tanine xewee bu Busumbala xewee place yu bari when we did this show talk na maag you can be me witness ma wax gars yi ne leen suñ government bi they are good at damage control instead of prevention Sénégal li ñuy def nii damage limo mooy prevention and not damage control di jàngal nit ñi naka la prevente fire instead of nga xaar ba fire am nga door a ñëw foofu di sympathize ak nit ñi dem si lopitaan bi politicize ko dem seeti ñooñu for the first time when you could you. didn't even have to go Macky Sall nitul pour dem ci dëkk bi ñim xaaya pour ñu liggéey ñu ngee def liggéey bi ñu ngee dem di jàngal community bi def civic education jàngal community bi naka la def pour prevent fires wala su fire bu ndaw commencé di xew instead of nga dem di o fire service yi di blame ñooñu di xaar ñooñu amuñ ndox wala ku amee caabi bi génn na dem jëndi cigarette wala génn na dem naani ataaya si booyi ki nga xam ne moo amee caabi fire torog a cotton cloth nga jël ko nga tooyal ko nga jël safara bi nga kooba ko mu ngi leen a xamal ne leen ngelaw bi moo tax safara di xew soo toppee soo feeyee yëf yi soo ko ekkatiwaatee rek ngelaw bi dafa ñëwaat because the ngelaw will blow on it safara bi tàkkaat xaaral ba bem fay ba tànga beek hit beeg yëpp dem nga door a ekkati di wet cloth waaye soo ko fa bàyyee it will come back again ngeen seet rek ma jekkale vidéo bi. seet dal jàppaa de sa kër kër ñëw di abale sama lay jël ndox mi këpp taal leen këpp aussi sax ñoom kese lañ koy defee amul benn secret et c'est très important jigéen ñu xam ko parce que yéenay nekk si wàññi lii lu yomb la jël leen mosu weñ ko këpp leen ko si mu fan kese la mais souvent nag morceau bi doon coton kii morceau bi dañ ko amee on sait bien que nylon la mais bu doonee boo ko xañee ngelaw li doon na fay bu leen si defee nii nag da ngeen taxaw un instant ba tàng tàng bi jeex tàkk ngeen soog a yëkkati seen bu leen ko yàqal mais bu leen ko defee nii mu fay ngeen yëkkati day jàppaat bu ko tàng tàng bi jeex ba set ngeen teg ngeen di tuur ngeen di tuwaat beneen jiw bi ngeen di tuwaat ko moo gën ngeen koy teg ngeen a fay na ngeen yëkkati ngeen yëkkatiwaat ak ngelaw li ñëwaat parce que ngelaw li moom mi ngi nii di taxaw di xaar moom loolu je pense bien que leer na donc ëllëg di ngeen def di ngeen la ko wàññi You see the community and how many people are present here learning from these officers. Macky Sall needul pour ñëw toog moom si boppam pour def lii. He has people ñoo xam ne lam assign nit ñi ñu ngi jóg di liggéey ku nekk ngay def liggéeyam. Why Gambia, in every department you go, people go to work by 10 o'clock before they start work because you suñ ñëwee es ñu ngeen deewoo to 8 ba 10 they ndeewoo la ñoo nekk So 10 o'clock you jotee ñu liggéey ba 12 1 o'clock ku nekk génn dem yoonam this is sad and unfortunate Gambia lii moo tax ba suñ dem we need to do everything possible to change the system suñ ko defutee suñ dëkka dinañ saxaar rek waaye duñ tàkka it's sad it's unfortunate it's disappointing you see how civic education is benefiting these people you see how these people are training their people nga xam ne they will be able to prevent fires from taking place this is sad kon Gambia nañ leen jàngee Sénégal nañ leen jàngee ci yeneen yi this is just to relate to see ne prevention is better than cure instead of doing damage control these people are doing prevention measures they are taking preventive measures in order to correct what is going on iba waxtu bi jàmbi nañu i mean i don't know what you have to add because cokku naa ñooñu jotuma leen ah, muy waa akira yi su ko defee ñu taxañ yëf yi rek tënk ko foofu noonu iba ah, ba beneen jamono ma bàyyi la rek nga dugg si jërëjëf iba Ousmane. Pa Ousmane eh, da nga wax léegi si vidéo Sénégal boobu noonu fire service crew bi dem def ñu ne waaye da nga xam lan moo ko trigger ba ñoom tam ñu jóg Afrique la rek. Mm-hmm. di seen saakul la. Mm-hmm. Sénégal recently nawet bi xam nga ñaata dettes lañu am regarding fire. Mm-hmm. comme ni ma la li ma neex nag ci ñoom. ñoom seen media bi su jógee wax dañ leen dee déglu waaye ñun lu rooxi loo wax la leneen dina jóg ñu fàtte ma du ma du ma apologize du ma leen toppatoo du ma leen lijjanti du ma leen sóoraale moo ñu tardel ñun gàmbe ñoom nag seen media bi su jógee bañ wax dañ dee jóg def something mm-hmm. foofu lañ utee ak ñun waaye ñun maa tey bi moo bari Pa Ousmane mm-hmm. te suñ media si ñoo la def maa tey roñu loo def na ko bu yàgg barki démba mm-hmm. def nga loo xam ne non sens la apologize sax nga ne doo apologize feel too big na yes mayo laa léegi man si high sit duma apologize tey duma apologize ëllëg su dem Sénégal ya dafaa jóg mu ñëw mu ne askan bi ñoo ma teg maa ngi jégalu erreur bu ma def ak dis dis tiya wax naa la ne man maay sa représentative bi sa naka lañ ko waxee sa correspondant bi in Dakar loolu bëgg a xam Sénégal laaj ma ko dis recently statistique des yi am amuñ ko ñëpp di leen coow di leen ko laaj te election is coming comme li nga wala protest Macky Sall tam nii la mun a def pour mun a win votes and cards mhm. waaye li ma neex ñoom génn waaye li ma neex ñoom génn nañ ñu ngi koo practice mhm. génn nañ ñu ngi koo wane ngay jàngale gërëgëroo tuuti mu dee ci sokk bo xam def nako loxo mu toy mu laal téléphone am mu maas ko courant mu dem l'hôpital pikin mbé modou lo gëna safara pool bi dafa tàkk gudi digi gudi mu ngi taw ñoñu dé lolu mo war li li xej na ñom tam ñu jox ñom ñëpp président yañ ci kaw muy Adama baro waxuma Sénégal sax fofu nonu man ñoñu nonu jëf dëkk la ñu ngi toppatoo ñu ngi toppatoo waaye man Gambia la wax Gambia sa pa Ousmane Adama baro wax na bénn wax bu am solo président la mënut a xam luy dox si institution si yëpp moo tax mu am ministers ministry ñooñu ñoo a dem def seen liggéey génne seen comfort zone yii nii ñu war a na a indil Adama Barrow yoo xam points yoo xam ne daf koo tilimal tilimal gouvernement bi tilimal leen ñoom seen boppa ñu génne dem lijjanti def seen liggéey they are not doing their job Pa Ousman sama ninety percent of them are not doing their job te loolu mooy di bottom fact mm-hmm. nañ génne ñu def seen liggéey ñi gis dugal ci biir simeeku mun a dugg ci biir foo xam ne gambien yi gisuñ ko dugguñ ko mm. xamuñ ko mm. ñu indi ko ñu sootaan ko Adama Barrow mun see jot ñu mun koo takkul mm. comme yi nga wax ne fee service yi nurses yi yëpp suñ leen trainul comme li maa wax ne GDHI let them go to the hospital gaa yi bind nañ Hadijatu Jaaju si bind na mu ne GDHI is already volunteering and we are in partnership with Serekunda General waa bàyyi ma seen comment yi yaa ngi doon ñu ngi wax actually and they are responding mu we already have a container waiting to be shipped but waiting for waiver from the government to ship the container we did our part we have been fundraising before the foreigners, but the average Gambian would rather promote the foreigner than their own. Mm-hmm. That's what we do on fire training um, professionally, and it's been educated in the local language um, is very clear. Boy Jao Mune Usman, can you do a type of a Gambia Port Authority? Because when you send a car, uh, uh a car or other things in Gambia by ports they used to steal your your article uh, like battery and many things why <laughs> that how can you buy your own things how can you buy your own things send it for your family and they steal it in the ports. mom uh, Fufula gina hadija tumune they have a functional healthcare department doing their jobs um uh, mune gambia tepa Uh, these are some of the things concerns ak questions ak um, feedback yoo xam ne jëlee nañ ko ci gars yi waxtu bi jàmb nañu we've been on air for two hours thirty minutes I mean jokk naa wa am um, gars yi jotuma leen this is something that is very sad comme li nga wax ne loolu la roxi loo wax roxi li mu wax neexut ba neexut waaye dëgg la ndax gisuloo affaire yi health care bi ñëw na ak yeneen yi fàtte nañ affaire am ken waxatut ko ëllëg ak gannaaw ëllëg la yëf yi di gën a jax ma xamal leen ne président Barrow every six la day génn wax ak askan wi ëllëg ak gannaaw ëllëg la moo génnaat pour waxtaan ak askan wi five journalists rek five media houses rek la gars yi allow pour ñu laaj ko questions he will have a press conference tomorrow then gannaaw ëllëg ñu allow five media houses pour ñu laaj ko questions naaw luy xew Gambia di past six months yëpp waxut si demoon na fi Angleterre di six months ago si la demoon wax ba affaire yi yooyu coow li lembe réew mi li waxoon ci yóbbi géew yi the same thing xew na fi I mean li xew Kanilaay li xew um, Faraba li xew Tanene di Assombi Bojang issue yofi bridge bi mu wax bi kàddu yim si wax yépp yofi jumaa mu wax there are so many issues firing of um, or reshuffling the cabinet there so many issues yoo xam ne génn nañ président bi dégguñ mu wax si moom si boppam yu si bëri that needs clarification yoo xam ne nit ñi bëgg nañoo dégg from moom five media houses rek lañ allow pour ñu wax ci lii ñu seet ñu seet ëllëg ak gannaaw ëllëg they didn't say they just say five we are not one of them they um, our, our application is still pending I mean, we are not one of them, definitely. But five media houses, regular wax na ñom lañ approve. We get the correspondence, mom lañ approve pour ñu dem. The applications are a lot. But why five media houses? Why? because the reason why my answer la more because dañ bugg a ñu babysit media has ñu leen a babysit it doesn't have to be I I like challenging questions amit Bojang moo ko setobee noonu mm-hmm. man nag ma xarit I'm not going to sant Bojang I doubt, I doubt that, I mean, Lula, it's possible, but Mununin could have at least 10 if they have that light volume. If there are so many questions to ask, if the different media houses are going to come with different questions, definitely ñoom war nañ ko I mean streamline war nañoo am lii they may not be able to give access to every single media house it's important that they set standards but five is too small and I am challenging them to increase that number to 10. Right now, there are so many media houses, both local and um, uh, online, both print and electronic. Ñooñu yëpp dañoo ñëw bugg am ak président bi waxtaan suñ defee a one two hours of press conference that is a press conference We how many questions and cover fa mun it's sad it's an it's, a, it's, it's unfortunate that our president can only talk to the people through the media once every six months twice in the year media bi la presidency media bi la yi across the world they use to communicate to the people you cannot go meet the people every day you cannot talk to the people every day you are only able to talk to them through the media it's unfortunate ne ñun suñ president can only talk to the Gambian people twice a year this is sad waaw ah, Ousmane loolu baax na de élection su génnee mu waxaati di dina eh, issue bi dinañ ko fàtte de dina wax ba romb. loolu laa la waaye su waxee loolu laa la nii. dina wax ba romb ba bokk élec su génnee élec su génnee ak gannaaw élec that will that will that will end the chapter for this I mean healthcare lifin bi nii. xanaa ñu daaj mu wax dina am yeneen yoo xam ne ñooy gën a pressing yeneen tojaange yoo xam ne dina ko wax yoo xam ne moom la mbambaat online ak that's what the media will carry and this story will die and this is a state of emergency this is a state of emergency lii lu ñoo fàtte la te lii du luñ war a fàtte lii is a state of emergency te dafa war a nekk loo xam ne dañ koo continuer dafa war a nekk loo xam ne dafa war a dem on waaye ëllëg ëllëg ngeen watch out fu baro speaking to the media inshallah, so su may wax ak media bi dina wax yoo xam ne dina tax ñu fàtte lii te lii du luñ war a comme li waa di ay wax di gars wax noonu it's it's it's it's true to some extent to a great extent sax not some extent but to a great extent and that's what I said it takes foreigners The man loolu moom a to meet métti si yëf every time Gambia anything happens it takes foreigners for us to take our people serious GDSI ñu ne la ñu ngi yàgg a laajte people may not have donated waaye su foreigner bi ñëwee initiate initiate ñu jël ko nangu ko si seen loxo the little they are donated moom la ñu wax Pa Ousmane according to them people have donated loolu lañ wax let them work in partnership with the hospital. Vena, Power Usman, we are in an era of technology. Mm -hmm. We want to see some move, some action. No men business and policy, no men gonna am experience, no men gonna am orientation, no see West mm What is not accepted here? You apply for it these people that are not aware ham, you mm-hmm. jangle len ham. Niki so ham mm-hmm. nga jangal ko ngon ko ne ko li ak li ak li ak li la. Ni buga the type of on that note. Hmm. and container bi depuis bu ñu waxee ne teg nañ ko ak ñoom bu ñu génnee ne boobu lañ am ba we want to see this container pour mu dama play dama wane this this this ante nekk ñi responsible DGHI comme lifin da association bu mag la ñi ko xeet nañ fay seen ticket ñu dem nit ñi in people binda ko ñu ngi am seen plateforme am seen social media la ñu emphasize ñu binda léegi tey Fatou Camara du bum génnee mu wax lu moo wax gisuloo léegi du ñëwee na ak Adama Barrow. Eva tamit dañ tey ñu wax. Eva people are the Eva people are the power. Eva su génnee ñu wax li nga wax Pa Ousmane ànd nañ say wax parce que because ñoom li lañ dee xee Aliou Badara mu ngi def loon ci bi Tabaski kan la invite du man maa la ko yónnee. waaw moom seen. kan lam yónnee kan lam invite pour ñu ñëw. waaye loolu soo gisee mu def ko on other way round xëy na comme li nga wala dafa am ñoo ne dañ dee def mu kii dafa soof torop ma ne ko yow li ngaa seetaan benn président Sénégal te soof te xëj na mu ngi laa irrité waaye because for the sake ne Sénégal am na ñoo xam ne de ko am naa xarit boo xam ne mënumaa seetaan Pa Ousmane mm-hmm. waaw noonu loolu la loolu la Iva dama bëgg a read dama bëgg a read this message. lu ñuy wax moo xam ne état la she cannot just listen mënut ñoo déglu mënut ñoo seetaan. Iva dama dama bëgg a read naka la ñoo assasé loolu. Mm, dama bëgg a read this message from Aunty Omi Andrew and it's very important mu ngi wax ne Gambians yaa ngi xër. biñ gisee message bi ñëpp seen xol yaa ngi tooy ñëpp a ngi bugg a donate especially bi naar bi waxee ne benn dollar dollar mu ne dollar fifty cents rek la moo cost pour ñu jënda fa bag boo xam ne five bags moo faa nekka dollar naka one pound fifty la pour ñu jënda loolu nit mun naa dem fele ne dem jënda benn thousand dollars wala two thousand wala five hundred including GDHI wala any institution boo xam ne ñu ngi bugg a help si lii anti omis message is very important pour ñu bàyyi ko xel mu ne hello know all. I know we all are hyped and very um, ready to donate 5,000, 10,000 blood bags. Please be mindful that they have an expiration date and these anticoagulants, these anticoagulants in the bags have a short shelf life. I'm glad If we send too many of them, they will only be wasted later. Again, please take note because these blood uh, uh, preservatives do have expiration dates lii lu am solo la pour ñu bàyyi ko xel message am bi seven people rek ñoo si comment thirty four people shared it and depuis keroog bi yëf yi génnee ñuy wax si la binda lii nii and she can she showing us the blood bag sample mu laa wax ne la garab gi nga xam ne wala yi nga xam ne moom la ñuy def ci bag bi nii pour mu mën a préserve blood bi daf day expire léegi suñ démé nak gàddu ten thousand twenty thousand one million bags yóbbu ko Gambia té sétuñ expiration date yi comme niñ ko waxé Gambia we are very good at this every single time dimba dimba dimba La jogé I mean uh, post Mati jog jabari alaji manka mu ngi dugal mburu miñ jënda ñu fekk fa ay insects In mburu over five insects there are so many things you expire you know Gambia and we still use them jëluñ ko as anything jëluñ ko as anything so su fekkee ne bags yi expire na ñu nekk foofu and our nurses don't pay attention dinañ continuer di fa def blood eventually ñoom instead of ñu jàppale nit ñi dañoo lor nit ñi loolu dina ma indi rek waaw ma indi exemple waaw ma indi exemple rek ne sëriñ bi ñu wax ne kat tànkam yi daf doon métti taalibeem bi ñëw ne daf koo busal tànka yi fekk moom fi moo bus kat taaba fa nekk instead of muy massage sëriñ bi pour di ko jàppale pour wàññi pain mu ngi koo bugg rey su bosee taab bi sëriñ bi yuuxu su bosee taab bi sëriñ bi yuuxu moom mu foog ne mu ngi bos kooku pour jàppale ko kooku daf doon enjoy lu fekk kooku mu ngi bugg a dee so you might think you are helping somebody te fekk yaa ngi yàq ak luñ xër xër tamit just because wax nañ one pound fifty yow gis na blood bag rek nga dem si lopitaan bi wala nga dem Amazon seet foofu doonu nga gis ne blood bag is available ñu ne dollar fifty la nga am sa benn fifty dollar hundred dollar jëndee ko bag keneen jënda keneen jënda keneen jënda before you know it we buy expired blood bags yoo xam ne suñ àggee foofu noonu nurse yi use ko def fa blood blood boobu can be infected instead of nga faj gars yi instead of nga jàppale gars yi yaa ngi leen a rey so anti Umi Andrews thank you very much this is a very good message boo xam ne luñ war a xam la as Gambians because ñëpp ngi xeer si jamono ji everybody wants to give everybody wants to donate and it's important that we pay attention to something like this kon ñu ngi koo gërëm di ko santa Iva waxtu ñu tënk rek waaw ñu tënk I'm, I'm, I'm so impressed. And then I'm glad me in because no one digger, they got me the team. Everyone is rushing, including me as myself. I'm not excluded. Rush them jelly donation. Why you what digger? But the thousand this that never again, I'm like call my time won't stop. No good jail at the bottom gender. Come bring your Make only everybody more am access to it. You make a eBay, you make online, Amazon, you know the poor Halloween party. nañ ci bàyyi xel tamit dafa am lu lug simila mun a la blood bag nga dem jënd blood back. du woog foofu noonu yooyu pour Halloween oo pour movies yii la moo tax fii laa yoroon ne GDHI ba tey in partnership with the hospital ñoom ñoo nekkal di di di non profitable organisation or charity ñoo war a mun a gën a génne def ay videos yoo xam ne dafa educate people yi comme li nga wax la civic education it is out let people do video Put one in this box. coming Put one in minister bi Put minister bi tam mun obviously yes we know you guys are crazy you want to help because Gambia la you guys have have the law for the Gambia or for your home but be very careful caution back here. Why not nag suñ ko dajalee ñu yóbbu ko xaalis boo xam ne account bi dinañ more transparency You get ñu war a ne yuñ soxloon jox nañu ko waaye xaalis bi tey suñ ko jëlee dajale ko jox leen ko ana transparency The father jënd ko kër beneen kër wala mu takkee ko seet wala su fekkee jigéen na Touré hmm. mu dem yóbboo ko doomam America wala whatever luxury life te yii la ñoo bañ te yii la ñoo daw it comes to cash our people are not honest when they come to cash hmm. moo tax a lot of people bugg ñoo jël responsibility moo tax ñu ne dañ bugg a back people Gambian people themselves are not honest with cash Pa Ousman transparency la Gambia yi gis dem sonna si données si today eh, lu ndaw lu bari la people are donating they want to see the ñu gis su a na why does it take a foreigner ñu ñëpp xeex nañ ko barki démba am na kooku lu mu wax te am gën a attaqué on the DJ su mun wax dëgg la ma ngi ko doon seetaan Gambia Talents ñoo demoon def ko mun a DJ si ñoo tax seen musique industry bi demoon dëgg bu wér teg la war dama dee dugga démba rek bu ma fa demee benn musique yi jàlli baa ko yaate DJ bi play wu ko benn musique yi nova DJ bi play wu ko man nag maay dugg ci xew yi ku leen bu la neexee yégal ma bu la neexee bu leen ma yégal damay dem si mbooloo bi li ma gis loolu lay wax su ko askan bi jooyee ma indil leen ko kooku tamit jooytu na Pa Ousmane jooytu yi dañ bari bu loolu wéyee tamit comme li maa wax la rek nañ try waaye nag change mosut a neex maa tudd dina ak tudd kenn dafa change la bu mu doon di xeex ba tey ñu am ndam it was never easy DGHI stand straight not still straight su ko defee ngeen nekk in partnership ngen nekk watchdog to the health sector to the health department ngeen def am ngeen di power pour def ko because of di la and then it's going to be a strong association boo xam worldwide dinañ supported supporter dinañ respect we are tired of giving our donation we are tired of buying equipment we want to see our medical people our professional team medical people in train leen so that they can become professional people or experts They are yi in daule ñoo xam high school and amuñ experience o or Ousmane The daw yaram l'hôpital yi Serekunda ñi fa daan def yow yaa ngi wax ne fële dompen side bi butéel yi ñoo diko di ko jaay di all these things needs to be banned They should Eva, Eva, Eva, Eva. waxal ba nga daaneel ba next mhm. li nga wax am na solo bu baax ñu ngi wax GDHI um, the other diaspora club tamit ñi demoon last year ci December bi. December ah dem they are going back they are going back ñoom seen seen donation bi am na ku ma waxal. a couple of people ñi ma wax ne génn nañ ci ñu ne ñoom am. GDHI bu lëndëm bi dafa tas. waxuma waxuma waxuma waxuma GDHI maa ngi investigate the other one some of their colleagues have left um uh, uh ñu ngi wax ne ñoom they have this um, uh, problem dem nañ mooy um, uh, mbootaay ñoom aji xadi bi ak ñoom Pa Ousmane Thiam ak ñoom Jojo Mbaye ak ñoom xadi um, Fane ak you name it. ñu ngi demaat this year Assane Ndiaye la they are going to I mean raise funds in the name of the healthcare system we are seeing what is happening in the healthcare Yofi dëkk nag du yofi caaxaan ñu wax ak yéen yëfi dëkk du yëfi last year whatever money they make from some of an insider from them is telling uh, told me ne they said they are not gonna disclose where the money is, what they did with the money, how much it is, and how much it is. This is coming from an insider. So agnomunti Demenak, this is what they need to do. You cannot go and raise funds. We are here to serve as a check on society. Dore kochi government bi wacha to the company wacha to the non-profit organization wacha to anybody yena iduyo fichahan especially healthcare we are talking about life people's lives here nit su toge yakar dafa tax comme jidi echa ak lifin yeb yaangi degal nit ñi di wax some people are saying they are not gonna donate it's just like lima len wax ki wax ne du donate blood no no a couple of people ñu wax ne duñ donate blood because koku amna experience jabari magam biñ rey am bi de nonu because the lopitan was negligent from not giving her blood blood ba insist ne foog ñu am a replacement before ñu jox ko blood kooku expérience am tax na ba mën a du donate keneen ak keneen ak keneen these people will make life hard for the GDHIs ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen su fekkee ne am na mbootaay boo xam ne ñu ngee collecte xaalis on behalf of people because soo waxee rek ñu ne donation donation man duma donate dama sonna si donate Gambien si ñu ngee laajte donation si We want to see. So, suñu laajte donation on behalf of you. The, dama leen ko dama wax ñun képp ku fi fin we will mention your name straight up as it is. Like I ñoom aji xadi loo moom mi nga xam ne moo jiite mbootaay boobu. ñoom joojo mbay gis nañ ko mu dem foofu noonu wax ak Assane Ndiaye gars yaa ngi prépare ne Assane Ndiaye yóbbu di siya dee toog moomoo jeng laa ñu ngi yóbbu ñeneen ak ñeneen ak ñeneen dafa am few things gis nga you are doing it in the name of Gambia yoo are doing it in the name of the Gambia healthcare system ne that system is dilapidated that system is fragile that system is weak that system is bad that system is dirty that system is um, incompetent that system lacks resources and all the negative things we associate with that system ne da ngeen bugg yéen pour step it up pour jàppa ci fànn pour jàppale nguur gi to complement the efforts of the government and other institutions that are working in this area it is not a joke when you collect money if you say it's an association if you say an mbootaay you are not doing it for yourself it's not for you and any money any resources you have the smallest dime the eh, average Gambian whether contribute na or not just because you are using the name our people for the most part when they understand so they know set up a non profit wala dañoo def charity especially if it is something that is registered once registered, you don't own it anymore anybody can come out and ask for help, for the documents can come and ask for the numbers can come and ask for the money you need to be transparent and spend the thing So, if any li ñu war dëggal investigate My guess, and I will get in touch with some of you guys so fake, and you are I mean hearing this which I know you will To fake ne again collect xaalis you better come out and publish your numbers as soon as possible and say this is how much we collected lii lañ gaada lii lañ ci fere su fekkee fine but you cannot afford to claim to organize something to take care of a situation that is in their need such as health care su ngeen one can understand education nit mun naa ñàkk education and they can still survive nit mun naa ñàkk lii and they can still survive Why health la wax security ak health is very important and you cannot play with that you cannot go and raise funds on behalf of those people and end up not putting it towards them and end up not living this is not dofi rumbox maa rek su ngeen buggee gaada si rek def seen tànn biir def seen sabar def seen yu baax just to have fun waaw def seen lu baax because you are because da ngeen waa waaw just because da ngeen liggéey seen xaalis ba at jeex ngeen bugg a dem Gambia to enjoy yourself kudos to you waaw déedéet boobu boobu kenn amul dara lu mu leen si wax loolu kenn amul dara lu mu leen si wax kenn amul dara lu mu leen si wax su fekkee ne loolu ngeen def dem rek teg seen xaalis seen hundred dollars hundred dollars hundred pounds hundred pounds hundred euros hundred euros however much dem jël seen xool bu baax dem jël seen all jumtuwaay yi ngeen war a def ngeen dem baatere foofu jënda seen clothes yu baax dem foofu have fun def seen reunion perfect to that nobody can say anything to you guys but the moment boole ngeen fa discourse rek you better be careful with what you do you better come back and talk to the people through any platform, through whatever means, but you owe it to the people te loolu is something te waxoon naa leen ko nag last year wax nañ bi ma gars yi contacté ñu wax ñu ne ma wax ak ñoom ñu ne ma waaw dafa am ku ñu wax ne pa ñu ne yéen Gambian Talents ngeen ne da ngeen a wax si ñun da ngeen a lii tey la waxtu wax si yéen jot de we would have never said anything about you guys. key. I nobody got anything on you. But once you involve the public, you we serve as watchdogs for the public. We serve as the mouthpiece of the community. And we are watching and watching closely all of you guys. All of you guys. kon waxtu bi jambu nañu ana saara ngi dugg ci won ci gannaaw amin uh, uh, uh, senone comment hadijatu jaju si mu we have done um, uh, videos we have um, ordered bags we have uh, process and can't rush to um, uh, conclusions because it is uh, healthcare wa lolu am solo la ana saar ne Jufo you are looking shine shine uh, cool sister Ami is looking after you itself well well duma la faale yëfi tooña ko neex bu baakha baakha baakh um, uh, waaw Khadijatu wax na Anna Sarr mu ne um, aren't you guys hearing each other Eva please let Pa Ousmane finish before chipping in uh, waaye pare nañ rek ci ñu doon wax amin maa ngi leen a jéggalu bu baax a baax a baax we've been on here for over two hours thirty minutes it's not a joke affaire health care la ñoo wax tomorrow like I said leneen dina génn ci yeneen tojaange based on the president's meet the media amin bi nga xam ne mi ngi ko war a def ak yeneen yoo xam ne dinañ xapoon ñuy ñaan yàlla rek Gambia gaaw a dem ñuy ñaan yàlla gambien si bàyyi li ñuy def ba tax suñ dëkk bi mun a dem ndax ëllëg dinañ ñëwaat next week indil leen li tax gambia du dem yal na em ci Adama Barrow Smith di media rek yal na em si Adama Barrow Smith di media bu beneen disaster beneen gàllankoor beneen issue génna li tax ba gambia du dem yal na bu nekk Eci euh, Baro euh, euh, Ba Baro dem Fatma Ba Baro dem pour joxe askan bi pour baatere wala pour célébrer birthday-am through whatever means te ñu ngi koo ñaax ne passé good birthday you can celebrate anywhere anytime def na ko Nigeria fa la ko fekka mu dellu si waat Gambia Eva gave a very good recommendation nga seet si ñi nga xam ne sonn nañ ci dëkk bi sooy feyal kenn ñaar sax ñu génn dem defi bitim réew dem faju ji am quality life nga xam ne am nga a success story sooy register sa achievements si am nga a success story dan dem jël few gifts whatever it is that you give to those individuals impact one life rather dan li ne joxe nga ten twenty thirty people something loo xam ne du change seen life to the better try to impact one life positively nga am that one success story ne kii kat fii la jaar and I gave this or we did this for them kon ñu ngi leen ay bëggee kàddu gi nag tey nekkul loo xam ne nit ñi dinañ ko like ndax everybody lañ fee laal it's not politics waruñ koo politicize nguur gi dañ si am cër this is not anything against President Barrow this is not anything against lawyer Ousainou Darboe this is not anything against Dr Isatou Touré or képp kuy saaf ci biir government bi at this minute this is about Gambia te yéen a ngi ko gis jaxarang firij boobu noonu xanaa ngeen nekk in denial waaye képp ko gis yéen xam ne firij boobu nu mel du dëgg du yoon bloodbath yu ñàkk ci réew mi ku ko gis xam ne du dëgg du yoon citizens yi dem di collecte xel xam ne du dëgg du yoon ak leneen loo xam ne mu ngi xew foofu ku nekk da nga si am cër te ku si nekk da nga war a bàyyi sa xel sa cër bi te nga teg ko ni mu war a ko ni mu a defee nga demee ko noonu kon ñu leen ay bëggee di leen jéggalu bu baax a ba may la one minute la may ko user in a positive way ku doon comment foofu why does it take a foreigner ñoom ñu ne dañ dee dañ dee traité xanaa ñoom discover woon yi frige yi nañ tilimé kon ñoom tam suñu ne audit feeñ ne su fekkee dañ dee dem di xanaa ibi yi loolu boo xam ne jox naa leen ko assignment la pour ñu am sama next Sunday incha allahu rabi beneen bi wax nga fi am solo pour wax ne ñeneen eh, bi ñooñu lay wax ñi dem pour oo Assane Ndiaye pour December eh, all in the name of Gambian people li ma laa ñaan rek mooy askan bi ñu dee def itam nañ ñu bàyyi si suñu jaam pausement buñ génnee woon Pa Gora Mbaye ñoom Pa Ousmane Thiam buñ doon def ñu seen wax ñu ne ndax loolu passé na mbiri ki nga xam ne moom dee na muy dirigé film Marshall ñiy jël forme police commune am na ñu ko triyaa di ko demal seen poos and it needs sa stop waaye su passé ñi ñëw bëgg a people bi ñëw yéen da ngeen mën a saka yéen Gambia Talents da ngeen mën a sulli lu yàgga da ngeen mën a sulli mbóot fii la tey jëf gën a mën a sulleeku fii England te man ñooñu laa day gën a amal problème ñu nekk ci west bi di ngay gis case boo xam ne ah case boo xam ne years gis na ko ñu ekkati ko keroog dama merci télé bi because ma ne ndax tuba bi ñuy jégale next week inshallah. allah jërëjëf dinañ dugg ci waat next week su ko defee ñu gën a yaatal wax ji laa kay seet dinañ contact ñoom aji xadi ñoom jojo mbay we know the people that are involved ñu si bokka suñ ndey mbi la gi Pa Ousmane nga xam ne fan follow wala si uh, la bokka ñu si bokka yëpp we know them and the executive we will reach out to them I mean, and, and, and, and, and get their side of the story because information is circulating and information is power. su ngeen bañee nag come out and talk come out and talk publish your numbers clear yourselves because you are making life hard for others if that's what you do kon ñu ngi leen ay bëggee leen gëm leen santa Gambian Talents TV ngeen nekk di seetaan Iba Sarr ak Pa Ousman Joof nekkal laoon leen koy defee saa su nekk rek lu tax Gambia du dem soo li may def ba tax Gambia du dem li Iba di def ba tax Gambia dem yow mii di déglu di seetaan looy def ba tax Gambia dem ak suñuy njiit ak suñuy mbokk ak suñuy askan li ñuy def ba tax suñu dëkk dem kanam kon boog ñu ngi leen ay bëggee di leen sàkku ndimbal nag again on behalf of Gambian Talents it's not easy to maintain such a platform am nañ suñ flotte bi ci Gambia fii nii gis ngeen programme si ñoo def rek gis ngeen Iba Sarr lim leen wax di ma ne moom la nekkoon amin di def ngeen gis liggéey bu rafet bi mu fa def ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi koy def fii nii ñu ngi leen a broadcastal live on YouTube live on Facebook we want to be able to be live on all platforms soo xam ne di ngeen ñu gis we want to be able to open our own local radio to touch the lives of the people on the ground This ngeen team bi ñu dispatch we have a lot of new shows coming out of Gambia for you guys we are showing you a lot of professional content now instead of doing things using our phones and stuff This ngeen liñ nekk di def kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a di leen ñaax pour ngeen jàppale ñu ñun Gambian Talents nekkuñ leen di leen laaj na ngeen jox ñu pour ñu jox keneen de déedéet ñun nekkuñ di leen laaj on behalf of other people we are asking to help us pour ñu sustain suñu institution bi pour ñu mun a continuer di leen defal liggéey bi ñu leen a defal suñu leen laajee pour ñeneen comme niñ ko defee si ka family bi anybody wants those numbers send me a message right now ma send la xaalis biñ raise ak ñaata la numbers yaa ngi foofu turu Facebook you see it ñaata la ak fiñ ko duggal dañ leen ko laajfal wan leen everything what we did with it paper time buñ raise xaalis on behalf of we do these things transparently so li ñuy wax loolu la ñuy dunda ñun li ñuy preach moo moom la ñuy practice to the best of our ability Gambia nag dafa miiti to do anything and one can easily discourage so ñu leen a ñaax bu kenn discourage muy GDHI muy diaspora club bi ak any other person or group of people that are doing things jëlee leen li ni ko Eva waxee as a positive constructive criticisms we will criticize and we will watch because Ivan Yinonte is Subasi just raised this money, 130 nyata euro, um, uh, pounds na raise Ivan. 100 and um um um nyata Ivan give me 137 um uh, pounds la raise Stacy Subasi just to help this cause. We believe in the cause. Why that doesn't mean we would not challenge institutions, we would not challenge individuals that are doing their things we get challenged for the things we do. It can be very frustrating, especially under the little resources that you have available and the resource little um, uh, uh, uh, uh things that you have available to you. How much we can do. xam a lot more opportunities a lot more resources you would have done a lot more damage so kon bu ko otherwise we will continue to critic and we will continue to watch that is why we are here as the media fu ñëpp dul ñun dinañ ko ñun dinañ ko laal our diagnosis our analysis is gonna be fair and balanced to the best of our ability no personal attack against the government the first lady the NARS or foreigners or di GDHIs the diaspora clubs or the people working at the hospital su ngeen déggee ku si nekk foo xam ne war nga yaa ngi fa rong indil nañ la ko ba pare wax la fooy war a mun a improve lan nga mun a def differently pour next time kon ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëb di leen sant bu baax a baax a baax di leen wax ne yéen a ngee déglu di seetaan Gambian Talents TV Pa Ousman Joof nekkal leen ci gannaaw microphone bi ak Eva Sarr di bëggee Eva ak képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu di ñu foloo rek until we come your way next time jërë ngeen jëf ba beneen jamono balaa maa naan dëkk bi du dem balaa maa dee naan dëkk bii du dem waaye naka la mooy demee a e eeneen jogun jàmm ku nekk bëgg a wana sa a mel ni jën xam naa su besoon ni kon du nokki oxygène Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun na toog Frank, look at Gambia with them winning sister Ivasa. Eh, <laughs> Gambia do them show every Sunday night on Gambia Talents Radio, hosted by Pa Usman Juf and Ivasa. 6 p.m. let TMT just in case you ain't know. Luther Gambia do them show Every Sunday night on Gambia Talents Radio Hosted by Pa Usman and Eva Sato 6pm let TMT just in case you ain't know We them, we them, we them Thank you.